بسم الإله ينملها إلى بلا مناع ولا انتهاء بسم الإله ينملها بلا مناع bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo seen jotaay mu tudde alkitaab ngeen koy am yoor yoor aj mu jot waxtu wi dellu suna dinañ ko defal si ci ànd ak seen mbokk alxaaji al imaam ak seen mbokk Serigne Mbacke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jéggulu sëriñ Cheikh soxna yi sama gaa yaa ngi nii ci studio bi tabaarakallaahu fas yéene ànd ak yéen 9h tabaarakallaahu ba midi. ñu ko baax ñu defee daal ñëw rek dékk micro bi Oustaz Alioune Mbaye nekk Oustaz Alioune asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatu. daal di koy dékk Alhaaji Sëriñ Mbàkke Sylla nekk Alhaaji Sëriñ Mbàkke Sylla asalaamaaleykum. salaam wa rahmatullaahi wa barakaatu. ngeen nuyonteeg way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 ak ñàkk di am mbégte ci seqaat ak moom jotaay bi di ko lalal ci bula <laughs> wala boog ci jiri bi oustaz di ñaan suñ borom mu def euh, suñ borom may ñu àggale ci jàmm allahuma amin oustaz Alioune jotaay bi tëddee incha allah nañ ko doon defee rek lañ ko fas yéene wéyal def ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi dina indi suñu laaj nga indi say tontu bu 10 heures jotee ñu ubbi téléphone bi bàyyi mbokk yi ñu indi seen laaj ak seen commentaire te gàttal ko bu ñëwee ba dix heures teg fanweeri simili la ñu jéem a ñëw tontu laaj yi nga xam te ñoo fi rot yi yomb ñu euh, bu dix heures jotee lay nekkee bitim réew ñoo ñooy woote ci 33 841 22 bëgg a jokkoo ak ñun ci suñu téléphone yi ñu ŋàbb bu dee ku nekk ci biir réew mi wala muy bàyyi xel jotaay bi dañ koy wax ne ko jamono ji ñuy àddoo boo ñu wooyee it dooñu mën a jot ndax ci téléphone bi ñuy wax ci rajo bee tax allahumma amin abil ijaaba fi sanni daayi tàmbaleer ci nuyoo bi jaaykati journaux yi tabarakallah ñi nga xam ne ñu ngàmb ci seen loxo ci dëkk bi day wër te ngàmb si di ak yeneen journaux yi asalaamualeykum teg ca maire gerte caaf yi nga xam ne ñooy jaay gerte caaf ci dëkk bi maire gerte caaf asalaamaaleykum ñi jaay ay meññit moo xam mango la moo xam banaana moo xam crassol ak yi demee ni ko yéen jaaykati meññit yi asalaamaaleykum jaay ci ganaar yi tabaarkalaaw yéen itam asalaamaaleykum moo xam ganaar gu dund la moo xam gu ñu ren di defar ko ba noppi yéen jaay ko ganaar yi asalaamaaleykum yéen teefank yi asalaamaaleykum ñi nga xam ne yéen jaay bëy xar yag nag yëg léem yi yéen jaaykati fas yi asalaamaaleykum ñëw na ci sardinier yi te mooy ñi nga xam ne ñoo yor tool yi di suuxat euh, di suuxat garab yi waaye di suuxat fleur yi tabarakallahu di ko def ci pot yeeg di ko jëmbat asalaamaaleykum yéen ñi bay salaat asalaamaaleykum ñi bay soble ak yen ñi jaay soble ak yéen ñi jënd soble tabarakallahu yéen ñëpp asalaamaaleykum ahlu soble seen président ma yoro ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla na yoro yéen ñi ànd ak ñun ci jotaay bi nag tabaarakalaa moo xam euh, fu di doon te ànd ak ñun ci jotaay bi yéen itam asalaamaaleykum lobbu gaas lobbu maam jaara asalaamaaleykum seen karakor xaadim yéen itam asalaamaaleykum ak yéen ak seen i client ren soma daar asalaamaaleykum produit Noura yéen itam asalaamaaleykum ñëpp noor nañ wut si leen baasu pëns asalaamaaleykum tàngal bi nga xam ne xew xew mu mu teew tabarakallah ñëpp beeg kër gu mu dugg ñëpp beeg tey nekk ci poche yi tàngal béggee asalaamaaleykum Oustaz Alioune Mbaye ne ni mi ngi lay béggee ndax yaa ngi ci poche am jànkati alxuraan yeeg jàngalekati alxuraan yi yéen itam asalaamaaleykum ñi nga am seen loxo yóbbu ca daara ya tabarakallah ci vacance yi yéen itam xanaa ku jàng juróom-ñeenti weer mën a jël ñaari weer jox sa borom te nag buñ ko équilibré woon siis siis lay doon salaatu sitta yu ma di sitta taatihi batta may tasaa <laughs> ngi ci biir xasida gi mbokk mi di jàng waa bitim réew ak fu ngeen mën di nekk asalaamaaleykum ak continent bi ngeen man di nekk rawatina mbokk yi nekk almamlakatul arabiyat saoudia nekk ca Riyad mbaa ca Jidda mbaa ñu nekk ca Madinatul Munawwara wala ñu nekk ca Sakaka wala Yanbu wala Akaka wala Ukasa kook sóor yi asalaamaaleykum syndicaliste yi yéen itam asalaamaaleykum corps diplomate yi yéen tam asalaamaaleykum politiciens yi nga xam ne ñu ngi ci campagne bi mel ni ko war a jeexal tey ci guddi asalaamaaleykum bu samedi ngeen noppalu bu dimanche ngeen wate ji ku ci nekk la cay sens ma ngi koy fekk ci biir kees ya tabarakallah bu ñu wàññee rek kenn ku nekk xam li nga am xam naa ñu ngi may joxoñ naan ma ñoom jiwéngi lay nuyu maa ngi leen di fay nuyoo ngeen xoole seen montre neuf heures jot na ba teg ñaar fukki simili su ma saana jot nag ñu daal di walbati ko dellusiwaat ci studio bi fekk fi Oustaz Alioune Mbaye fekk fi Sëñ Mbàkke si la ne leen tafaddala mashkurayni fa jazakumullahu xayra tayib jërëjëf Oustaz macha allah yaakaar naa Sëñ Mbàkke moom activé activé lañ ñun ñëpp noonu laay ndeysaan <laughs> na nuyu na ñëpp wax dëgg yàlla nuyu na ñëpp daal kàlla uh-huh. eh, mbokk mi ne na maçon yi yi gisuñu seen bopp gis dégguñu seen bopp ma nekk kon nag eh, waaw waaw kon xam naa moom lañ ma doon joxe naan maçon yaa ngi nuyu <laughs> maçon yi maa ngi di fay nuyoo tabaarkalla moo xam ca kaw ngeen nekk moo xam ci suuf moo xam da ngeen di raax wala ngeen di tegalee macha allah macha allah Ba yaakaar boo gisee oustaz eh, ñi nga jëkkee mooy jaaykatu sunu yi ndeysaan daa mel ne def bës ci jamono mii de waaw waaw moo tax ma taamu leen ci ndeysaan ndeysaan su ma su ma yëgoon ubbi ab ab di jaay. di jaay lan PMI di jaay lan. journaux journaux dégg nga le PMI li nga wax kese ka tax di. waaw dox na di. moom kay kenn mënu ko gis. waaw jaay journal ak yooyu. waaw loolu de baax na moom. waaye oustaz jërëjëf. di yàlla ñëw bi matale na. wane na ne rek namoon nañu gaañ ñoom ni ñu nammee. di leen ndokkeel bu baax nag comme ni nga ko waxee rek di doyloo li nga jot a jukki mm-hmm. ko defee koo ci tudd rek mu yóbbaale ñi ñi ñi ñu tudd ndeysaan sëñ Mbàkke ndeysaan am na solo de am na solo loolu la ñuy faral di wax bu mm-hmm. jukkee ñenn ñi mu yóbbaale ñi ci def mu yóbbaale ñi ci des ndax damay faral di wax ne ko boo limee ñiy déglu jotaay bi yëpp boo muy tuut jant bi dana soxta duñ jeexal te du te du jeex <laughs> ndeysaan nga dëgg la ndax àdduna lëmb la uh-huh. kon nag jërëjëf ay ca alhamdulilah kon ñu dugg ci fii uh-huh. bismillah Mbaye <laughs> oustaz waaw na nga na nga def naka sa semaine. Euh, sama semaine macha allah maa ngi ci ciy góorgóorlu. Ah. wutal ko programme di ci jéem a dox. waaw tënku ci rek. tënku ci rek 24 sur 24. incha allah. yal na yàgg. allahumma amiin. <coughs> mais bu ñu ko delloo ci wàllu politique bi dafa naa daa mel ne léegi ne li daan wër wa dem na këng waxi mag dem na lañ taali. loolu war na mbaam. lu waaye doon jaay li mu lamb <laughs> ndeysaan yéen kat su deetee mu mu fàttali ma làmb ak yooyu <laughs> ndeysaan daa niroog làmb sëñ Mbàkke ndeysaan daa yi seen yëf yi hmm. niroog nag làmb la bàgg war na mbaam mooy lan ah mooy mooy ka jaay lam doon jaay lamb na war na mbaam muy ñibbi ah. loolu laa ko teg ah, waaw dëgg xanaa bu ñu fàllu si si déggee danañu ko jubanti <laughs> ndeysaan ndeysaan ah, yéebéer de ndeysaan waaw ah. macha allah xam naa oustaz bu fekkee ne nañuy door waxtaan yi suñu bàkkee ay nu jëkkee ko rek comme lañ leen jëkkee ndax yàgg nañu ko def mm-hmm. bu yi fi musaan dengoon ba toll fii ah, ñu bari daawoon nañu bàyyi xel émission bi mm-hmm. déglu leçon morale ak soññe boo mm-hmm. xamante nii war nga ko wax ndax nii président defee discours à la nation eh, xalif généraux yi ku ci am programme def eh, ci cérémonie officielle bi ak kàddu dénkaane wala soññe wala tere Euh, yow yàlla la ko teg ci sunu émission bi nga xam ne ni <clears throat> Sénégal li yëpp Sénégal yëpp dañ koy déglu. Mm-hmm. donc kon ci wàllu làmmiñu Mbàkke man ak ñi déglu. ndeysaan mu toll nii xët xët jeeg dënn yu tàng yi yëpp. Mm-hmm. dama lay jox kàddu gi. Mm-hmm. nga ñaax nu ñu door dugg ci waxtaan wi. tabaarakallah. Ah, jërëjëf li nuy séentu yàlla nañ ko ci fekk. amiin mbaa ñu fekk ci lu ko fawxa. sas alin dañuy toll foofu. assemblée moo bëgg jëkkër jëkkër waaw mhm. assemblée nationale moo bëgg ay jëkkër tey bëgg itam ay jabar mhm. ñu war koo tànnal ci liste yi mhm. ñu ko mat jëkkër tànnal ko ci liste yi ñu ko mat jabar tegal nañ ñu nag ñun fukki jëkkër ak juróom ñaar bari de. Mhm. bu dimanche yi buñ xëyee. Mhm. dem tànn ci téeméeri jëkkër ak juróom fukk juróom-benn fukk ak juróom. ne leen yéen ñii. Mhm. a war a dem assemblée nationale. yéen lañ fa yónni. yéen def suñu digganteeg état bi. nu séentu ci yéen lum nuy gàll te att ko nayam ci yéen. luñ war a am te amuñu ko jël leen ko sol seenu dàll wutalinu ko yéen ñii yéen a war a wateel budget ministère yi kenn ku ne ngutul ngeen wutal ko sàq mi muy liggéeye fukki weer yeeg ñaar yéen ñii yéen a ko war a def loi yi nga xam ne bu ñëwee tam penc mi jag yéen ñi yéen ko war a tëral soxla nañu lool loi yoo xam ne day sécuriser penc bi loi yu tax ku amati dara ñu sàmmal la ko soxla nañ ko loi yu sàmm sunu ngor geeg sunu jom geeg sunu diina ji soxla nañ ko fab këyit wa dugal ci urne ba daal dem ñibbi ñooñu lañ bëgg a tànn bu dimanche Oustaz Alioune ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy tànnkat yi mhm. loolu nag jarul gàddu wet mhm. jarul nga bu paaka mhm. waxuma laa pistolet walaw xeer walaw xeer moom daal waroon ngaa doon koo xam ne kii loolu ñuy def ci aéroport yi nga xam ne boo ci burumloo bu ne cell ñu xam ñu wóolu la mhm. li <laughs> ne ci yi waaw nga xam boo ci burumloo bu ne cell ñu wóolu la mhm. nit waroon na buy dem di di di di wate ji doon koo xam ne kii bu demoon dugg ca yooyu ñu wóolu ko mhm. sunu sëriñ ba sunu maam ja sëriñ kër si moo daan wax ne bu élection jotee na ngeen xam ne ku nekk ñaari xob nga yor mm-hmm. xob wi ci sa gémmiñ wi ci sa poos mm-hmm. mu ne wi ci sa gémmiñ soxlawuñ ko fa mm-hmm. fi ñu ko soxlaa woon moom bi gaa yi campagne wax nañ lañu war a wax lépp kon denc lañu seen gémmiñ jël wi ci seen poos wate ko ci dem ñibbi loolu mooy jëm ci ñi nga xam ne ñooy tànn mm-hmm. nga xam ne ñoom la yàlla joxañoon ca fal nas àll na lësiina ursile ilayhi mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy tànn mm-hmm. ñu ànd ceekuk dal bàyyi ko fanaanal gi tàllal seeni loxo kurpañ baaxut ñol ñol baaxut ku ma def nangam baaxut bu ngeen fi defee nangam baaxut yooyu xëccoo yooyu xët xët yooyu baaxul ci mpénc am pénc daa war a stable ñépp ànd ak euh, ànd ak dal man a watte ji ndànk ñibbi sa kër ndànk ndékki tal si defem déglu nay Mareem Njaay ah. <laughs> kon loolu ñooñu la mu des ñi ñiy siège ci bureau yeeg ñu ne ci wat bi mm-hmm. bu kenn jéem indi ci bureau luy indi ñol-ñol mm-hmm. Mm-hmm. ku ñëw andiw kayitam mhm. laaj leen ko num tudd xool ko ca liste ba mhm. bu ca nekkee jox leen ko moote bu ci mhm. nekkut ne ko nekkoo ci bu leen ci xëccoo bu leen ci korpañante waa bitim réew du ñu fi amee ak di ñu yor ñun nous sommes démocrates lu dëgg am na ñaari alternance te lii du alternance campagne législative la lu dëgg bu ko defee bu ngoon jotee bu nu wàññee looy am jël laa maania li maa atayta wallaahi waaye nag wala mu'tiya li maa manata loolu daal sas alin ci tàmbali gi loolu lañ koy tàmbalee rek ñaan suñu borom nag mu jaarale ko fam ko daan jaarale mu sedd guy ñu def ko dimanche ca ngoon ñu dégg résultat yi buñ xëyee liggéey yi yi sol seen i dem dem assemblée tabaarakallaahu ñi nga xam ne ñoo am ñoo am sensu dem dem waaw sens toog ñu amul sens toog. xaar ba beneen tubaarkàlla. <laughs> jërëjëf Oustaz wax dëgg yàlla message bi àgg na. walla boog dégg nañu ko. nu ko yàlla defalee noonu. amiin merci tamit euh, ñaaw njort gi ak ñàkk wóolonte gi. Mhm. ak euh, dank fanaanal gi ak menace. le lendemain. Mhm. dépouillement bi yooyu yëpp it waras na cee wax. Mhm. ndax itam nit. da ngay wóolu sa urne wóolu sa presse. Mhm. en même temps wóolu sa justice. waaye mhm. bu ñaaw njott commencé am rek am na kuy fàkk bu ëllëgee bu nangam lay amee lii laay def bu ëllëgee bu nangam lii laay def. Mhm. te loolu te mën naa jur ñol-ñol. waaw taaxuraankatu arab ba def ne. ida saa filul mari saat dunuunuhu waykatu arab ba neen kuy jëf jëf ju ñaaw rek ñaaw njort maanaam fi nga mas a jaar koo seen mu jaar fa da ngay def lal fa jaar la moo ko fa jaarale <laughs> dëgg de waaw <laughs> am déet dëgg la lu am solo la kon nan wóolante mm-hmm. ñett moom dañ leen di wóolu mm-hmm. attekat mm-hmm. fajkat jàngalekat wóolu rek loo ko may mu penc bi du baax allahu akbar fajkat attekat jàngalekat waaw wallaay waaw lu lekk rek sëñ Mbacke bala nga jël euh, dama gis disposition yi nga xam te moom la presque bi jël xam nga balaa ñuy wax justice ak yoon ak dépouillement bi conseil constitutionnel ak yooyu bala ñuy ñëw bay wax résultat officiel yi mhm. ñi ca jiitu mooy suñu mbokki journaliste yi ndeysaan te booy xool dépp campagne bi dara ump ci kenn wala bokk ñu leen di topp mhm. jëli seen i caméra jëli seen i journal jëli seen i ndaw ak la ca war lépp ñu def ko ñii duñu ko toppal wax yàlla rafet na tam ñoo am ñoom confiance. Mhm. te yombaleel liggéey bi. Mhm. sëñ Mbacke loolu rek laaj boobu. am na solo am na solo jërëjëf Oustaz Mbaye jërëjëf Oustaz ci kàddu yu am solo yooyu nga xamante ne moom jën indi. Mhm. mu mel ne kàddu yooyu bi seen moom la ñuy xaar ci daara ji. mooy kàddu yi nit ñi delloo si leen ak xamal leen ne àdduna amul solo. waaw Oustaz léegi loolu bu ñu ko waxee ba noppi. su fekkente ne nag euh, nit bëgg na caa àgg hmm, fas yi mu fas. Hmm, moom nan lay def ngir àgg ci. Eh, jumtukaayu mën a doxale loolu ba jàmm am ci penc mi mhm. maanaam ci misaal ak par parloo day dañ ci moom wala euh, féete mënta ñàkk bu boobaa wala euh, yi nga xamante ne mooy dox ci diggante bi daal duñ ko fi mhm. defee waa ji dalaa yëpp boo sàgganee mu jaar sa kaw jàll ñi gëmuñu dara yu mel noonu alayhi salaatu salaam mi yàlla yónni woon ci ñun sëñ Mbàkke dafa na jàngaloon njàng mu gàtt Oustaz Alioune mhm. te fees dell ki njëriñ dañu ne ko woon kan mooy kan mooy ki nangul penc mi te di ko defar mhm. kooku kan la mu ne man salimal muslimuuna mhm. bi lisaanihi mhm. wa yadihi allahu akbar mooy ku musal waa penc mi ci saw làmmiñ musal leen ci sa loxo rek jàmm na ñooy ci waaw làmmiñ wi loxo bi loxo bi kon sëñ Mbàkke ki nga xam ne day wate ji na doyloo carte wi Mm-hmm. bu mu ci boole làmmiñ wi mm-hmm. dëgg la mm-hmm. waaw waaye def ci carte wi ba noppi fab làmmiñ wa teg ca aw làmmiñ daf lay tontu làmmiñ waxaat waxaat loxo jóg rek doo dogu mooy dana ustaas waaw Rwanda li nga lakkoon lépp ci wax la départ dëgg la ba ñu ay deux mille morts nangam morts muy lu kenn mënta wax ba léegi maa ngi wax sëñ Mbàkke bii gi ne ko sëy boo gis mu rëng-rëngi mhm. wax jaa nga départ ca lal ba allahu mhm. waxi lal ba adduna tukki nag mhm. sëy boo gis mu rëng-rëngi wax jaa nga départ ca lal ba bu waxtaan amee ca lal ba jëriñante am ca lal ba bu nu xëyee jàmm rek kay am li feek nu loo ngi am allahu akbar ah waaw waaye jàmmi jàmmi campagne it ak jàmmi élection mën mm-hmm. nga tàmbalee ca tàmbali ba mm-hmm. mooy waxtaan wa mm-hmm. état woote opposition wuy te kenn bañ taxaw ci xeer tey woote <laughs> kenn bañ a ŋàbb saw xeer di wuy ji <laughs> taxaw ci xeer di woote baaxul waaw donc sëñ Mbàkke lu am solo la mooy par parloo gi na dañ far nag mënut a ñàkk waaw far mënut a ñàkk ndax bu ñu demee nga yëkkati xob defal kooku ci biir mm-hmm. moom nga faral mm-hmm. Mm-hmm. am déet dëgg la boo ko par parloo nag mooy da naan moom doo nga fi nekk ku dul moom nekkoo fi mu daal di yàqu waaw tabarkàlla tabarkàlla am na solo am na solo oustaz jërëjëf ci fànn googu nga indi oustaz Mbaye jëm ci mm-hmm. wàllu far ak par parlo mm-hmm. eh, jëm ci wàllu di di di saara suñu président desk bi ah. macha allah di ko jaale borom bi génn àdduna bërki démb di ko ñaanal suñu borom xaare ko aljanna amin amin eh, tabarkàlla Haji Malick Maodo tabarkàlla waaw am na solo ñu ngi koy nuyu baax baax lay lay <laughs> bu luq njur moom man <laughs> dama yàgg dama yàggoon day doog sax nee na ay weeram day woon <laughs> am na solo ayca oustaz Mbaye waaw am na solo jërëjëf sëñ Mbacke mm-hmm. euh, saa ni ñu duggee am na solo mm-hmm. te itam loolu euh, am na am na am na njàngat waaw mu des rek ak dànkaafu ndax yaakaar naa ni ñi jiitu mm-hmm. te bëgg ñu fal leen climat jàmm ñoo ko war a jëkk woote su ko defee ñoo yor caqu ñoom ñoo yor caqu boor bi fal leen ma fal leen ma tey woote ci violence ak nangam ku ko def dinaa la def nangam. Mhm. ak jóg leen taxaw. Mhm. ku def nangam def leen ko nangam. Mhm. dafa am discours yoo xamante ne warees na ko mën a gàttal. dëgg la de rafetul ci mpénc. ndax ñun ñëpp ñooy doomi réew mi te itam sunu ensemble la ñuy fal. dëgg la de. dëgg la sunu ensemble la fal. ci ñun la ñuy jógee. ci ñun la ñuy dellu. sunu assemblée la ñuy fal. ci ñun la ñuy jóge ci ñun la ñuy dellu. léegi nag wékk yépp ci yii nag. mën naa indi ñol-ñol. Hmm. waaw jàpp ne yëf yaa ngi nii fii la yem mën naa indi ñol ñol hmm. jàpp it ne nit ñi ñii jubuñu hmm. mën naa indi ñol ñol dëgg jàpp ne da ngeen maa bëgg a sàcc kon teelaa leen def nangam mën naa indi ñol ñol lu coow li bari bari bari urne yi moo ñu àtte ndeysaan mm-hmm. lu coow li bari bari rek mm-hmm. mbàkke urne mm-hmm. rek mënuy atte mbañ nga ci wek kees ga ca biir dëgg la que man daal oustaz élection yi importance bi ñu ko jox ak kumbeen bi mu am daa xaw a mel ne dimension bi mu jël dafa ëpp dimension <laughs> mel ne élection présidentielle dafa départation waaw moom daal oustaz mujj naa am dimension lool moom élection yi tàmbalee ko ca liste yu bari yi ak ni nga xamante ne noonu lañ ko jëlee ma bëggoon nag maanaam ku ci mel ne man nga xam ne lim comprendre ci yooyu bëriwul hmm. ñu wax ñu ba xam maanaam ak député moom maanaam pal gii daa am lu muy def ci réew mi lu rëy rëy rëy bu bis bi jàllee waaw aha am na lu luñ ci mën a def lu rëy damaa gis kat sonnoon nañ ko fi 2012 ça ça mel ne dem fi dara ñi nga xam ne ñoo nekk tey ci ci siège bi hmm. ñoom bu ñu ko gañee hmm. dafa am joxoñ bu muy joxoñ bu jëm ci mille 2019 Mm-hmm. la ca tegee seen procès yi nga xam ne jàpp nañ ne moom lañ tëral mm-hmm. dañoo jàpp ne buñ ko gañee mm-hmm. bu ñu ne jóg leen wateel ñu nàngam ñu wateel leen ko ñoom foofu lañ jublu foofu tax ñu ŋànk ci jàpp ne kon daa war a sotti ndax référendum yi élection yi ak yële lépp am njàng la ci ñoom lépp test la ci ñoom lu dëgg euh, tubarkàlla bu dee ñi nga xam ne dañoo opposé ñoom bu ñu ko gañee li muy tekki mooy ñoom mën nañu daal di doxal tuuti mhm. daal di ne gaañu nag dangeen di wàcc mhm. dangeen di wàcc mhm. bu ñu ko gañee mën nañu it léeg-léeg gaa yëkkati benn affaire ñu ne du ngeen ko fi jàllalee Mm-hmm. ab test lay doon ci ñoom it jëm 2019. Mm-hmm. kon kay looloo tax affaire bi mujj xaw a kii. waaw ëpp ñun fi ñu ko natt. waaw très bien. Mm-hmm. niveau boobu wala dimension boobu foofu la toll. moo tax ñoom ñu gaar ci seen yëf yi. jàpp ni bii moom kuñ ci gañe ba muy tuul. daanaka da nga jënd jëndi mbàjj rek tëdd. <laughs> maanaam kon am nattukaay la ci ñoom. ñoom la ci ñoom. Uh-huh. très bien. Oustaz Mbaye xam nga daa am ku ma doon wax démb ne ko daal ay élection tollut nii. ndax ku ciy dem itam buñ la falut après nga dem liggéeyi rek bu beneen mu ne ma dafa maanaam li nga mës a maanaam mbir mi moo tax yow day simple noonu ci yow mm-hmm. mais ñoom ñi nga xam ne affaire bi dafa ne ci ñoom day am beneen enjeu bu ci nekk boo xam ne leneen la ko oustaz bu ñu xaajoon sénégalais yi ñaar lañ koo xam ne mbir mi moom jaral na ko fanaan àll jaral na ko naaje ndax dafa am lu mu koy jural ci jëmmi boppam mm-hmm. ak ki nga xam ne moom peut-être jàmmi réew mi soxal na ko moom réew mi rek la ci kii kooku jar naa waxal ni mbàkke benn laaj a ngi nii ah suñu réew gis euh, politicien mm. bu bàyyi dem ca tool ya déedéet bariwul xanaa nga cee gis ko bàyyi sàmmi xaram. <laughs> mas nga cee gis ko bàyyi bàyyi pomme de terre. Mm-hmm. waaw lu tax loolu. li tax loolu mooy ku toog ci mbisu mbirum sunu politique dangay am xaalis. ku la mm-hmm. jege am xaalis. Mm-hmm. sa mbokk yëpp am xaalis. boo wàccee am xaalis toog di lekk sam xaalis. <laughs> loolu la yëfi. <laughs> moom kay sëñ. Euh, moo tax bu laaj laajee fukki million juróom nga wuti indi. ñu laaj nanga mu junni signature nga wuti indi wuti loo campagne mhm. soo demee nag bu fekkee weeru jot ñu jox la million la ca topp xëy na bala nga am fukki weer ak ñaar mhm. sa yëf yi la daal di tàmbalee génn mhm. ak ñamatoos yeeg euh, yu ni demee <laughs> loolu sëñ Mbàkke mooy li ci nekk ah, moo tax it de affaire bi daal yéeme na loolu waaye bu fekkoon na politique meloon la mel jamonoy euh, ja ja Mamadou jamonoy ñoom Babacar Niang PLP PLP walaay de Sénégal Babacar Niang waaw mbaa fàttali ah, waaw jamonoy Masmoud Diop ay mooy waaw jamonoy Masmoud Diop ndeysaan ak jamono ñooñu fekku nga xam ne mën ngaa politique ba politique bi jeex na sa kër ga meloon la mel te génn kër doom nga am sa laal nga fa am solo. waaw gis nga ba ci mbër yi. Mm-hmm. mbër yu njëkk yi. mbër yu bëree ba wàcc. ba mbër ba ñoom maam góor gi. waaye ñoom ñoom si mbay gi sax. ndeysaan maam góor gi lu mu defut ci làmb ji amul. bilaay ndeysaan. gisuma këram nag waaye comme daan en tout cas lu mu def ci la mais politique yi nga suluñu nii jamono yooyu yaa teewut politique daa amoon enjeu de oustaz metti woon jaral nit ñi lu ne ay bakkan daan ci dee mu jaral nit ñi lu ne wala bakkan yu néew a ci doon dee fi station ak seen xeer ci doon jóg waaw mais xam nga oustaz yi amoon nag yu ci bari soppeeku na de léegi presse gën naa yokk maanaam média jumtukaay yi nit ñi gën nañoo comprendre li xew. waaw euh, suñu suñu suñu parti yu bari yi bëreewul woon noonu est-ce yokku ko nit ñee soppeeku rek oustaz waaye euh, ñun la de ba tey. ñun la ba tey hmm. waaye li ci nekk léegi def ci nekkutoon démb. démb nit ki wax ne maa defar nangam noo ko gënaloon maa fi amee nangam. Hmm. waaw. waaw uh-huh. def maa defar nangam mu gën li maa fi amee nangam tey hmm. euh, am mbër dafa seeti woon Abdou Diouf hmm. may ko audience mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko ab Abdou juf ne ko maa ngi fàttaliku falang la woon waaw sa benn combat boo doon def ndar hmm. ma nga yéeg ci miir ba nu ànd la seetaan falang ne ko taxaw taxawal mu ne am na ko yaa ma doon seetaan Hmm. ndeysaan mu ne ko boobu maa ngi ci miir bi di la seetaan fa la ne ko ah ay su ma la ko nekk rek yaay doon président ndeysaan ndeysaan <laughs> ma lay tungam dugal ci làmb ji waaye sëñ hmm. mooy bu njëkk hmm. am aw way mu la am xaalis gis nga te réew mi li nit ki xaalis bu gënal way bi du dem ndeysaan suñu dem bi réew am aw way moo la gënal am xaalis dëgg la dëgg la demee te nag ba xaalis gënal nu way wi ñaane nangu na Hmm. ñaane nangu waaye bañatum jërëjëf oustaz am nga am na solo ci li nga jàngat ci wàllu député doon député sa mandat jeex nga bëggaat ko doonaat hmm. man mi nga xamante ne mosuma koo doon ma lay xool ñee la ba bëggaat ko doon hmm. loolu lépp dafay jàngat mi bu fekkoon te ne liggéeyal askan wi ak doon seen baam nekk fidèle serviteur askan wi la soo paree sa cinq da nga may leen moo noppalu. xanaa kon avantage yi ñu leen jox dañ ko waroon wàññi. waaw dafa waroon doon am nga ak nit ñooy far seen bopp. Oustaz mm. Alioune. ak député daa warutoon na doon ab soldu. maanaam waruñoo am salaire ñoom. déedéet indemni indemnisation lañ xaw ma indemnité lañ war a am. Mm. am na ku koy wax ci seen i. campagne waaw mooy bu ree ñoo amee. Mm. nga war sa oto. taal ko ñëw yendu fa. dem. Mm-hmm. bu réunion bi jeexee ñeenti fan la ñetti fan. Mm-hmm. la ñuy calculer yow loo war a am ñu def ko sa compte nga toog. Mm-hmm. kay am ci biir campagne am nañu ku yu waxee noonu. lu am solo la. <laughs> c'est important oustaz. dëgg la tey xoolal cent soixante cinq députés. ku ci nekk benn million su fekkee nun la. Mm. ñaata la. cent soixante cinq millions. cent soixante cinq millions par weer. waaw est-ce que million <laughs> ah, ah, <laughs> ak essence ci aju. très bien ci ko defee par weer. Hmm. loolu weccet la di. léegi moo tax kon Oustaz man ma bëggoon a Oustaz Mbaye ne politique. waaw est-ce que ñoom politiciens yi du ñoom la politique arrangé waaye arrangé réew mi. ndax daa mel ne ñun ah. jéego yi réew mi dox daa néew. waaye politique moom égal jabar ju rafet kër gu rafet. soppi xar kanam man boo la wala nga. tontu sa boppam ndax lan <laughs> tontu nga sa bopp moo tax may moo tax may la waaw góor tontu leen rek bu leen ma ko buux bu leen ma ko buux ab laaj la rek. yow daal dañu bëgg waaw góor. no comment. kon daal politiciens yi ñoo ci ñoom ñoo ci yokkoo waaye noonu sunu yokku def parce que ñoom lim leen jaral. Hmm. jaral leen seen bakkan. Hmm. jaral leen kurpañante. Hmm. du réew mi ci boppam la. li bàyyi ili waxoon ni ndax sangu néew mi dara mu ci nekk. <laughs> bàyyi sangu néew bi waaw mun jaa ñëwoon ndax sangu néew bi daal ci nekk mun ko waaw trente cinq mille mun ko bàyyi kooku maa kaa yor <laughs> parce que réew ci ci sëñ Mbàkke waaw réew ñi fi nekk ñooy doomi réew mi mm-hmm. Mm-hmm. ñun ñëpp yaay lañ koy wax mm-hmm. waaye nag question bi ñuy wax ñun yëpp mooy mm. yaay loo ma defal mm. yaay jàppa ci yéeg doo ko dégg te question bi mu waroon yaay lu ma la defal <laughs> Mm. day na waar de. <laughs> Ah. kooku nag ñun tàmbale ci ñun ñii. waaw mm-hmm. ñun ñan ñun ñii di wax. waaw ñun ñii di ay na nanu tàmbale question bi suñu bopp. lan lañ defar réew ku nekk war nga xalaat sa diggante yàlla loo ma sa defar réew mi. waaw mais xam nga Oustaz Sall. mais bu xaaral xaaral Mbacke. parce que ñu ci bari jàpp nañ ni. Mm-hmm. réew mi kenn rek war a defar. Mm-hmm. mooy ki jiite. waaw kenn dong nga war a defar. Mm-hmm. lu bu yàqoo mooma moom la ñuy xas moom la tudd parce que moo jiite. Mm-hmm. léegi Sass Ba Alioune. waaw mm-hmm. Babacar Touré kañ ngeen nga jege si. ndeysaan imaamul faat <laughs> moom laa gëj a gis te moom ñaata at ba yërër ba man bàyyiwut benn yoon laa mos a gis sax Mbàkke mos ngeen gisee bëriwut de <laughs> benn yoon laa mos a gis sax man <laughs> bëriwut de ci rajo bi benn yoon laa nekk nii wallaay ndeysaan fa mu toog foofu la toog dong fii ne mënoon na wax ne waaye lu tax bi ngeen ma seet si mhm. ah, wala mu ne dama leen a soxla waaw ah wala ñëw leen ba mukk ndeysaan comme moom jàpp na ñu ngi ci éditorial bi ñu nekkoon rek fi ni mi ngi ubbi dinu déglu ah, ma ko laaj jaga si la pour noppi ñu nangam ndeysaan kay maanaam kon nun li nga wax sànq. Mm-hmm. dana war a jàpp nekkoon kon Sud FM. Mm-hmm. sunub rajo. lu mm-hmm. seenub rajo ñoom. lu dëkk waaw réew mi it noonu la kat. rek samam réewa waaye bu wax am réewa ma. loolu nag fi mu ñuy dugal day métti léeg-léeg mooy lépp dañ ciy xaar. ki war a def rek mu di ci def. <laughs> waaw eh, foofu foofu mu yem noonu. waaw waaw oustaz Mbaye baal mu yóbbaale ko. xam nga oustaz doom ji moom. di wax eh, maanaam yaay lan laa la war a defal. bu fekkee mooy ñun man ak yow ak oustaz Mbaye ak ñeneen ñi may déglu te doon citoyen yi ñoom. waaw ñoom dafa mel ni li ñu war a defal réew mi ñu ngi koy def. alhamdulilah ndax réew mi organisé nañ ko seen i impôt dañ koy dagg ca la ñu am far force mhm. la ñuy jënd seen i di ca dem mhm. bu élection jotee ñu dem wate ji mhm. maanaam ñoom li tax ñee mën a fonctionné bu dee dañoo leb boot sax ci suñu tur lañ ko leb waaye daa mel na ñun ñoo a ñi ñu ñu war a fal maanaam ñoom ñooy jël loolu ba noppi ñun li war a yomb ci ñun du yomb ci ñun maanaam kon ñoom ñoom politiciens yi nga xam ne jot nañ ci nguur ak ñu ko yóot te jotuñu ci ñoo ñoo war a wax ñoom lan lañ war a defar réew mi mais ñun kay laa ma nun question bi foofu la jëm di question bi foofu la jëm de waaye day daal day tàmbalee ci ñun nag day tàmbalee ci ñun nag muy ñun waaw ci nekk nay wax rek lu ma defal réew lu ma defal loolu nga wax nag ay jéego la ci mm-hmm. des na yeneen nag mm-hmm. ay jéego la ci dëgg la ki romb lu ñu yàq ci réew mi te mbokk ci réew mi mm-hmm. daa war a taxaw ne ka yàq xee ka yàq xee nag li ngay wax sànq mooy nun war nañoo ràññee politiciens yi nga xam ne buñ leen tegee ci jal bi nu def mm-hmm. ak ñi nga xam ne bu leen fa tegee duñ def duñ def dañuy mos mosal seeni gaay mm-hmm. tabarkale te duñ nangoo wàcc kenn mos mm-hmm. ah, waaw demal te ñëw demal te ñëw bu leen toxal seen nag déglu mbokk yi fan jëm duñ fa yàgg insha allah partenaires yi rek lan bëgg ne leen ñoo ngi nii tabarkale te del siwaat على سيدنا محمد الفاتح jërëjëf ci ànd beeg si defeem seen rajo ñoo ñooy ñi ànd ak ñun jotaay bi oustaz Alioune lu ci tegee xanaa kay rek ñu catal waxtaan bi Mbàkke waaw ay ca eh, oustaz ginnaaw boo xamante nag wax nga ak askan wi waxtaan ak politiciens yi ñi nga xam te ñooy lawax yi mm-hmm. eh, presse bi mm-hmm. réseaux sociaux yi mm-hmm. eh, pendant après <laughs> avant ay <laughs> lan nga leen di wax ñoom itam ndax daal am na waaw presse bi day. Hmm. ñoom tam gàcce ngaalaama. Hmm. ñoom ñooy wax nangam xew na. Hmm. wala xad wassalna lahumul qawla. ñoom ñooy wax nangam xew na. ñoom li leen di sant mooy ñu bañ di def naba u faasiq. waaye di jëfandikoo. luy naba u faasiq naba u faasiq mooy information boo xam ne bii ki ko ki la ko jox. ah amateur. ama amateur la. Mm-hmm. Mm-hmm. ki la ko jox amateur la. Mm-hmm. comme ne ki la ko jox amateur la te yow professionnel nga. jële ko fi mu ko defee te indi ko fi nga nekk yow. bépp information boo xam ne bii dafa sensible. xamal ni nga koy waxee xamal ñi nga koy wax xamal dimension bi mu toll. boo ci xam ne bii concerné wul mi. ak bi concerné penc mi xàmmee leen mhm. li nga xam ne mooy xewit waxal mhm. dangaa nekk ci centre bi mhm. am ku ñëw di buuxante pour wate ñu ne ko doo fi watee bi la joxe antenne bi mën nga ne diw diw da ñëw na fi mi ngi buuxante ne bëggu taw il faut mu wate nangam ak nangam loolu ñoom mooy seen wàll bañ xewee ak léegi bokk na ci li jafe ci penc mi mooy sàcc élection waaw wax dëgg ba ñëwee léegi. Hmm. dox nañ ci jéegu rëy ñoom presse bi. ci ngalaama ci wàcc ci wàllu woowu. Hmm. bi bi bi bi bi presse privée tàmbalee xew. Hmm. waaw sol ya day bi. wallaahi. waaw <laughs> dëgg la sol ya day bi. loolu moo tax ñoom. Euh, loolu moo ci seen rôle. moo ci seen nangam xew na. kii fi xew. lee fi xew. fii lañ tàmbalee fii lañ yem. ubbi nañ ubbi nañ ubbi nañ. bureau yi mhm. wala bureau sàngam bureau sàngam ba léegi ubbeeguñ ko ubbeeguñu il est dix wala représentant yi ñëwaguñu waaw wala président bureau bi ñëwagul <laughs> mhm. yooyu man mais li man si mag wala nga li nga wax rek oustaz mooy am solo mhm. na ba faasiq maanaam itam lii dal lii dal euh, ñi kilifa yi mooy dal presse parce que far tam baaxul ci presse xam nga am na ci élection yoo xam dañu demoon ba digg bëccëg am ñu woote ni ñu ngi tëj organe sàngam mm-hmm. mm-hmm. ñëpp daw jëm fa ci diggu élection bi mu gën a neex mm-hmm. yooyu itam professionnellement professionnel dafa war a moytu yooyu parce que bis la boo xamante ni adduna bi yëpp dañuy braqué wu ci suñu réew te ñi mënta ñëw fii ci presse bi lañuy déglu ci la ñuy xool kon nañu nekk responsable dëgg la kay dox di dem ca ca ca ca organe ba it mu bàyyi xel la ca mën a nekk ci ay retombées ah, kañ waaw très bien ba wax loo xamante ni ay bakkan nañ ci tuuru mhm. wala ay deret di ci tuuru wala tey musiba moo xamante ne ay lakk yàq alali jaamu mën nañ caa tuuru mhm. ngir sa propre intérêt bopp mhm. war nga xam ne yow yaay responsable waaw am na solo am na solo wax dëgg yàlla fi ngeen dugg tey am na solo mm, amati na solo nam daan def ndax dafa jëm ci wàllu nit niteel nit ñi te loolu dafa am solo lool ndax ci wax war naa suuraal ne waxam ji benn baat la rek waaye mën naa taal am réew mën naa indi fitna Mm-hmm. mën naa doon loo xam ne itam man naa tax ñu bàyyi nit ki man naa tax ñu xeeb as gor te yooyu moom yu am solo la mm-hmm. eh, damaa defe woon oustaz ab yax ci laaj bee léegi bi ñu dem ci publicité yi waaw mooy dafa am ñoo xam ne fi mu ne tey <laughs> non ah, non ab yax bu ma doon seeñ rek <laughs> <laughs> ñoo xam ne tey fay boo waxee politique dañ naan la ci man kay politiciens yi moom day na sëkk mm-hmm. nga xam ne daa jékki-jékki mel ne mbirum wateek élection moom da na a soof boo moytu tax am na ci ñu toog seen i bureau fi mu ne nga xam ne dañ nañ ak réer waaye tay yi ñoo wate ji te ñoom xam nañ responsabilité bi ne ci wate mhm. boo doon wax information politique dañ naan la doy na sëkk ndax politicien bi pour maanaam politique bi amul benn njariñ ba mhm. noppi dañuy tardel nit ñi mhm. tey suñu réew mi ñu jàpp ne ngir ñu ami tali ngir ñu am ay euh, am ndox ngir ñu am courant ngir lépp dox ngir ñu faju te politique moo ko war a doxal oustaz loolu wax ñooñu li ma wax ñooñu mooy ñu defaraat déggin wi bu fekkee da ne ne penc mi jagut ndax ñi ko yor jaguñu te nañ leen bàyyi ñor ko loolu contradiction la sas alin mi jagut ni muy doxee baaxu ñu ko yor jagaluñ ko te nañ leen bàyyi ñu yor ko kenn amul foo jëm kenn tabarkàlla kañ la fi loolu jóge lii dox ci penc mi sëñ Mbàkke ki mu ki mu métti ci moom mm. daa war a jóg dox tànki wa nuriidu an namunna ala lasina stud'ifu wallaay ndeysaan cey cey sama borom waaw ah, wallaay cey sama borom mm-hmm. wa nuridu an na mun mm-hmm. na ala lasina studifu suñu borom mi ngi jàngal ne pénc mën a dafa dafa am ñu ñu fay noggutu mm-hmm, bu amul ñu jog jàpp ci loxol ñi noggutu dañuy continuer noggutu rek rek waaw rek kon nag ñooñu di xalaati xalaat bu sëñ Mbàkke seen xalaat moo waroon na doon rek wa nuridu an na mun na ala lasina studifu rek loolu nag daa am prix dafa am waaw ku ca dugg dañ la xas ndax suñ penc hmm. nun ñii fale hmm. ñoo bàyyeegul loolu waaw nun ñoo jàpp ne génne mbóot nun ñoo jàpp ne ku ne ca plateau euh, politique ba war nañ laa wax kàddu gu nu neex te loolu bàkkaar la hmm. bis boo tegee ci derub jàmbur lu lu lu bu yomal xiyaamee boo ko fayee see bagaas jeex waaw wasbir nag ala maa yaquluun wajhum ajran jamila wa darni wal mukaddibiina rek maa ñoom wax waaw loolu jërëjëf sa li nga wax rek mooy ñun suñu askan Mbàkke mm-hmm. dañu nekk askan spécial mm-hmm. maanaam ñun ñooy xas ñooy fal ñooy fëlli ñun daal ñoo ne au-dessus de tout le monde mm-hmm. lu nu neex wax ba pare nag di utiliser pour ça dama gis te fan yi nga xam naa cedd na loolu Mbàkke waaw mooy réseaux sociaux yi fi ñu nekk nii ci phase yi ñu toll nii ku ñu bëgg a daaneel lañu la xamaloon lu ñaaw ñu génne ko def ko ci biir wax yi nga waxoon waxi daaw jéeg ñu génnewaat ko ci biir yooyu xam nga xam nga xam muccee waaw bañ a a déglu bañ a lire commentaire hmm. rek <laughs> yow de spécial nga <laughs> oustaz de ah, ah. nan jàng bu baax hmm. suuratul muzammil hmm. ba iqra wàcceeg bi mu wàccee suriwul am déet mhm. waaw suñu borom wax ko ci biir baat bu doy waar mm. wasbir ala ma yaqulun rek lay gi nag tekkiwu li ñu lay wax ngay muñ mhm. da ngay mën a muñ ba bañ a bokk ci wax ji mhm. ndeysaan da ngay mën a muñ bañ a bokk ci commentaire yi lala ko mën a def léegi nag parce que asabru mooy xabsu nafsika an an ma am maa yu mooy sa bakkan daa bëgg dem fee nga ne ko toogal fii rek nu waxtaan xam nga maam Alpha. nekk waaw maam Alpha si. Mhm. dañuy waxtaan ci catal ko rek. waaw mu wax li nga wax. mu ni saxaaba yi biñ daan toog bi nettali. waaw la da ca sax ca ca fitnatul kubra. waaw dañ ko wax ba yàgg am benn saxaab bu jóg ni ko. Mhm. sunu loxo day setoon na ca deret yooya. waaw waaw kon nan fexe ba sunu làmmiñ set ca deret ya. tabaarkalla c'est important oustaz mooy li nga wax nii. jërëjëf. lu am solo la mm-hmm. yàlla na yàlla boole sàmm nag amiin na sedd guy gën a sedd yi weesu woon nu xëy ci dimanche ji amiin dem wate mm-hmm. dellu si sunu kër amiin ndékki amiin taal si defem ah. déglu soxna Ndeye Marème Ndiaye waaw <laughs> ay kay ba ci kanam jërëjëf bu leen toxal seen ak déglu fi ñu jëm doon fa yàgg insha allah aywa jërëjëf yal na yàlla nangu ñaan yooyu yëpp tubaarkàlla te barkeel ko ñoo koy ñaan suñu borom subhanahu wa mu nangu ko mm-hmm. bismillah oustaz kon ñu jéem a ñëw ci laaj yi nga xam ne ñoo fi rot mhm. kii jëkk a jaar ci buum gi day mooy suñu doomu baay bu baax balee sëñ tukulóor baay Mouhamadou Bachirou Ba mhm. moom laajam mi ngi ko delloo ci alquran ginnaaw commentaire yu bari yi nga xam ne indi ko nag ak ñaani mu ñaan ci sponsor yi mhm. dafay laaj ci surtout nuur aaya fanweer ak benn ba pare mi ngi doole fi suñu borom subhanahu wa taala di wax wa qul lil mu'minaati yaghdudna min absaarihinna mhm. wa yaxfazna furujahunna mhm. wala yubdina zinatahunna mhm. illa ma zahara minha ila axiri jërëjëf bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim borom bi tabaaraka wa taala moo bëgg a defar pénc mi samp fi mujtama boo xam ne saalim lay doon mu wax jigéen nan la bëgg mu man koo def ba du ñee moroomi jigéenam yi du hmm. ñeetaani ci pénc mi hmm. mu ne ko dool del yemale sab xool ndax yemale sab xool mën na laa jural ngay war du bu dëgër hmm. wa qul lil muminina na min abu na su ko defee wa yaxfasna na waaye su fekkee loo xool bëgg ko loo gis ñee boroom léegi tey tabarkalla war du jafe la mu ne mu ne la nag wala yubdina zinatahunna illa ma zaara minha waxoon nañ ko suñu bind yàlla weesu bu ñu feeñal seen taar lu dul la ca feeñ te mooy taaru pénc mi taar bi pénc mi di gis muy xarkanam bi ak tënk yi bu leneen feeñ nag pénc mi daal moom da jóge sànd ga jëm marché ngelaw baa nga jóge caaro jëm ginnaaw raay baa nga jóge feneen pénc mi bu ci kenn gis lu dul sa xarkanam bi ak tënk bi loolu la wax jigéen hmm. ne ko nag wal yadribna bi xumurihinna ala jubihinna hmm. soo bëggee kenn du gis ci yow dara hmm. da ngay fab sa sa la des ci sa muuraay ga muura ko sa dënn bi ak sa nopp yi waaw sa bën bënu sa bën bënu mbub mi daal bu duggee ci bopp bi ba agsi ci baat bi li wër baat bi bu ko kenn gis la jëm ci wàññe bu ko kenn gis wala euh, mu ne bi xumurihinna ala jubihinna wala yabdina zinatahunna beneen taara ngoog illaa li buulatihinna lu dul jëkkër mooy taar bi ci kër gi mhm. mooy taar bi ci kër gi Oustaz Alioune waaw kon jóge na ci taar ba ca mbedd ma ñu mhm. ngi ci taar bi ci kër gi mhm. taar bi ci kër gi nag buulatuhunna abaa'ihinna abaa'i buulatihinna abnaa'ihinna abnaa'i buulatihinna ixwaanihinna bani ixwaanihinna bani axwaatihinna nisaa'ihinna maamalakat aymaanuhunna awi taabiina xayru ulil irba min rijaali awi tifli allasina laa allasina lam yasaru ala awrati nisa ñooñu mooy taaru kër gi awi taabiina mooy nga xam ne xay ah awi taabiina mooy taabiina mooy altoppe yi góori altoppe yi ñu tudde ataama sóor nga xam ne ci kër gi lañ nekk seen ni xel nekkul ci mbirum jigéen taluñu ko na bool bi wàcc ñu añ na bool bi wàcc ñu reer waaye taluñ yooyu ñoom waaw xale yi nga xam ne xamuñu xamaguñ luy wàllu góor ak jigéen mm-hmm. ñoom tam amuñu problème mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga daa nit walaa yudribna bi arjulihinna muy beneen taar li yox lam ma yox fi ne min zinatihinna muy taar boo xam ne moom euh, taar bu ñu nëbb la muy fer yaag ya ñuy àndal boobu nag taaru néeg bi la kon wax na taaru mbedd mi wax na taaru kër gi wax na taaru néeg bi mhm. Mhm. taaru néeg bi nag jëkkër dong taaru kër gi waa kër gi dong taaru mbedd mi ñëpp mhm. mooy xar kanam tey waa maanaam ku ne daa ci am boo xam ne yaa ko moom daal waaw lu am solo la mais mais bu dee jigéen yaayam mën na dugg néegam ak yooyu muy yéen léegi la la de comme ça taar bi nga xamante ni sa jëkkër a ma ko war a gis maanaam keneen euh, sia ñëw fa wala dafa am fa mu yem mhm. sas aline mhm. wax ba wax fa nisaa ihinna mhm. mooy taarub kër gi la ca néeg ba nag loola moom sas aline yaayam yaay lu ci yoona xanaa looloo tax mu am ay yëre yoo xam ne moom la ñuy xam ne moom la ñuy doxee ci ëtt bi soo gisee ma laaj loolu waaw dafa ñu suñu pénc bi dafa spécial léeg-léeg nga gis ku ñuy maye ñu leen demal sa bàjjet mu yeb la sa bàyyi wala dem jënd yenn bagages yi yooyu jox la ko. naa leen def nii. Ah. loola moom xam nga gisulub taar. waaw ah, dafa indi taar rek. da maanaam taar bu ñuy wax la ak di ko junj. waaw. <laughs> ndeysaan <laughs> kon Oustaz su ma la déggee li ñuy wax ak jonge ak léeg-léeg li nga xamante ne ay waajtaay la. dafa mm. am yoo xamante ne jëkkër dong nga ko war a gis. képp nag. lu ala ma yaxfir min zinatihinna mm. rek tabarkàlla. rek wa tuubu ilaa jamii'an ayyuhal mu'minuun. ndeysaan yéen ñi fa weesu woon nag tuub leen. oustaz léeg-léeg nga dem ci dëkk yoo xam ne nag am na yoo xam dañ koy exposé de nga ñëw ci ab néeg wala ab saal gis euh, benn euh, côté boo xamante ne nii ab pharmacie sax lañ koy tudde ñoom mm-hmm. maanaam jumtukaay yi ñuy soxla buñ fatoo yëpp fa la nekk waaye day mel ne dañ ko exposé di ko wane waale looloo xanaa kiiwul loolu la sunu borom waxoon ne ci ci ci kaw boo yëgee tudd mm-hmm. fa in lam tajidoo fiha ahadan fala tadxuluha mm-hmm. maanaam boo ñëwee ci kër da nga yëg lu bañ ci yooya waaw kër gi it nañ yëg ne ku yëglu ñu mm. denc yooyoo tax mm-hmm. dëgg la mm. dëgg la waaw yenn cumbikaay yëpp ñu denc ko yëpp ñu maanaam daa am yoo xam ne bët wuru caa tege waaw kay ginnaaw kii def ne koŋ-koŋ wala asalaamaaleykum mm. léegi balañ ko wax waaleykum salaam ak jàll si la aksil mm-hmm. nañ xool yu yi mërta gis mm-hmm. am na koo xam ne lu mu gis ci kër dana ko nettali dëgg la gerte gu tege bu demee dana ko wax saftalit am na ñoo xam ne gerte gu tege guñ saaf sax buñ ko gisee kër buñ si buñ nee wax ko mm-hmm. commentaire ka mm-hmm. tax sunu borom li mu wax ni am solo la mu wax ne yaa llaziina aamanu mm. laa tadxulu buyuutan gayra buyuutikum lu mu wax hatta tasta'nisu lu mu ca teg wa tusallimu ala ahliha cay sama borom mm-hmm. Ah, léegi xëyru na gum de loolu tax suñu mbàkk yooyu ngay wax noonu bu nit ki nuyoo wala mu fëgg wala nangam ñu xool yi ñu bañ mu gis ko yëpp bu fekkee télévision la boo jàppoon hmm. defe ne bu si ñëwee def si commentaire hmm. nga changé hmm. ndax am na ko xam bu fekk nga jàpp France 24 sax mu ne ah diw ci France 24 rek lay jàpp ndeysaan <laughs> yàlla nu yàlla yërëm amiin am na solo oustaz nga dem di jënd gis koo xamante ne nii maanaam loolu ñuy wax mbubbum fanaanukaay comme nu ngeen koy waxee ci tubaab euh, déedéet beneen bi xam simis de nuit simis de de nuit waaw kay yooyu moom lay sol ñëw di jënd si mburoog wala nga gis ko ko mu taxaw ci buntu kër ga di séentu xale sol ko ah. yu demee noonu loolu xanaa moom dug ñu tëdde yàlla na yàlla fay Fallou Cissé moom la tuddee xasidaam nga ak a ñeme bët mm-hmm. ñeme bët pire <laughs> moom la ko wax ak lu am solo la ak a ñeme bët ndeysaan ko bay bëgg tëdd xam nu mu ko ci waxee tabarkalla yooyu donc loolu la mm-hmm. am na koo xam ne kii lim fanaanoo ñeme na koo dem ci bitig ba di jënd mburu dëgg la ak dësu wala nangam ak nangam mm-hmm. yooyu yooyu de l'islam da koy tere parce am na ko mhm. xam ne kii loolu mooy yee xarisaam dëgg la dëgg la bët bët am na ko xam ne que loolu mooy yee xarisaam te xaris jins ya très dangereux ci xaris yëpp mu ci gën a garaaw dëgg la lay ndeysaan ndeysaan est xam naa ta ba tedd na loolu mais <laughs> waaw mbàkk nii mm. même ci war nga dem ci wàllu jigéen ñi xam ne nekk di sëy ak seen mm-hmm. di seen bagay secret yi ñu di ko weer ci ci ci ci léegi bi waaw wala di ko wé bu fekkee ne yaay la ak doom ji jigéen fu la neex weeral mm-hmm. bu dee yaay ak doom ju góor sa néeg sax bu fa dugg mhm. Mhm. doom ju góor waaw tabarkal mhm. tabarkal lislaama fiir <laughs> ndeysaan ah, <laughs> a jàngale te mën a jàngale <laughs> kii maan dëgg la oustaz am na solo de xam naa kon ba mu naan daal jigéen daa bokk ci yi mu war a def mooy sàmmal boppam borom këram ndeysaan ndekete oustaz taar ba ca la bokk ak euh, maanaam dox di lépp loo xamante ne mën naa attiré góor ci sa bopp rek danga ko war a bàyyi am na solo jërëjëf demal dañu oustaz bu leen toxal fii nag dégloo fenn jëm duñu fa yàgg insha allah dañuy yëg rek daal del si waat

Eserozing garab la bu aay ci biir buy daw hétérozingue mën naa aar liir buy juddu ba am juróomi at ci lorange biir buy daw te it di ko kattanal hétérozingue garab la bu ñuy joxe te doo fay dara mën nga ko fekk ci bépp ndawal kër docteur ASC yi dispensaires yi ak relais communautaires yi jox leen hétéro ci ñaari fan ak zinc ci diiru fukki fan ngir faj biir buy daw sama doom dama koy jox hétéro ak zinc ku ci bëgg lu leer wooteel ci 800 00 50 50. fii ci Sénégal léegi ak transfert ak code bu Orange Money si dièse 144 yónneel xaalis ku la neex ak numéro bu mu munti yor lu yomb la te wóor yow mi ñuy yónnee di nga jot message bu ànd ak code booy wone ak sa identité si bépp point Orange ngir ñu fay la sa xaalis si lu gaaw Orange Money daal moom rek la yombalal na ñëpp jot ak yonne xaalis lii ci dàq mooy bonus crédit bi mu àndal yow mi yónnee loo yónnee ci xaalis Orange may la ko ci crédit maanaam boo yónnee 10 000 francs ñu may la 10 000 francs crédit bonus crédit téléphonique plafonné à 10 000 francs vous rapprochez de l'essentiel Orange Orange Money est un service Orange Finance Mobile Sénégal Mbacké mhm. mu ku sa jëkkër wàccub liggéey maanaam ku sa jëkkër faatu mhm. te mu nga faatub àll mhm. kañ nga war a tàmbali teñ ji walla mhm. jërëjëf alhamdulilah mhm. bis bi mu déggee tàgge bi lay tàmbali mhm. su fekkee tey ci vendredi le la ko dégg tey lay tàmbali moo xam ne bu agsi na dakaar moo xam agsiwul Dakar bu faatoo ba am fukki fan ak juróom mu dégg ko tey ba fukki fan ak juróom deesu na ci la ca des moo ca des bu fekkee daa toog weer door koo dégg kon dafay des ñetti weer ak fukki fan Mm-hmm. wa sukran ci laaj boobu solo bi mm-hmm. tey kon foo ko déggee rek sa kii sa kii tàmbalil tàmbalil mm-hmm. ah, mais fekkee moom dée gi am na déggoo ko ba mu am un mois waaw léegi quatre trois mois ngay dese kon da ngay commencer à zéro déedéet du tee benn benn weer bi même boo ko tënjut jàll na jàll na jàll na moom jàll na la trois mois nga dese ak di jours ok sëñ Mbacke ah tubaarkàlla jërëjëf oustaz laaj bu am solo la boo xamante ne léeg euh, mu indi kii ndax teñ ñi moom daa bari ay coono oustaz teñ ñi mu tàmbali mooy lan <laughs> bu bu ñee tàmbali na mooy mooy rek jàppal ne fii la tàmbalee wala daa am yoo war a def na mooy jàppal boo gàttoonu tànk mm-hmm. yokkal mm-hmm. boo gàttoonu làmmiñ njokkal mm-hmm. waaw boo bëggoon adduna wàññil loolu rek la ñeenti weer ak fukki fan waaw danaay def léeg-léeg bu ma demee ci njaal sukk ca kanam ka faatule ne ko Dakar day nii la ñuy tënjee mm-hmm. sharia nag lii la wax wasalaam mm-hmm. mm-hmm. waaw waaw tëññinu Dakar ak waa sharia daa bokkul déedéet <laughs> tëññinu Dakar Mbàkke mm. li kenn mënu ko dañ lay wax ne ci mer gàddu ngay tëdd waaw dañ lay sedd añ doo sangu chaque jour doo seetaan tele hmm? doo soccu doo doo maabu loolu aada la oustaz wala ñun ñoo ko ci dugal rek. waaw parce que wala day suñ culture. Dakar day dox daje. mook Amérique ñoo yem. Hmm. ku ci nekk culture ba nekk seen dëkk rek moom nga indi da jànguñu ko fenn. xam nga ci wàllu ngénte bu nit amee doom da gis ne am na dëkk yoom dañuy jël xobi faftan def ko ci bunt bi ngegedalal ko paaka ak ay banti bale mais loolu yéen ci wàllu culture mën nañoo wax ne lii moo taxoon ñu ko daan def ci aada waaw léegi yi ñu yokk ci ténji nag moom daa am lu tax wala moom it daa ñëwal boppam rek lenn de gis naa ko ci ci aada moom hmm. mooy lay ñuy teg hmm. pour ñu cotiser lu ñu añee lay ba loolu lay tegtale <laughs> donc ku ñëw def ci ku ñëw def ci bañ am luñ añee ñu joxe ñu añee ibali <laughs> ah, déy waat moom kay fi ne ni aada li naan li maam alaaji Maalik radiyallaahu taala daan wax ni aada daan na fi sariya mm. ah, waaw gisaguñu lu ko mën a dindi ndeysaan ndax dañ doon tey di oustaz sëriñ si dañoo bari ndax da ngay mm. dem ne man de léegi naa lii ku mas a tënj rek indil la lam daan def indil la lam daan def mm-hmm. ba ma ca tooloo nii la mm-hmm. ak ci mi ci mi gën a métti nag mm-hmm. ana bantu salaan beeg na dal dalli góor gi. waaw booy dem ci toile da am ku la yóbbu. la ilaha illallah. mais simmi gi nag. booy simmi gi timis ngay dem simmi gi. taxaw ci benn jànj sangoo ci benn montagne montagne moom xorondom nangam nangam moom daal kenn xamul yi lan la. ah boo nekkee Dakar diwul xorondom da <laughs> nga soxna de. diwul la nga nekk Amérique. <laughs> ndaw su ñëwoon Dakar fii ñu yóbbu ko néegam de eh, deuxième étage. Mm-hmm. fekk ko mu yor paaka di di xoos karo yi. Mm-hmm. <laughs> noo koy loolu def mu ne sama sama maam sama bàjjen moo ne ma mm-hmm. naa suul téere bi ci loon lal gi. ay waaye ndaw. di xoos ka roy moom moom bàjjanam da ko waroon na ko na wax ak moom ndeysaan tey euh, am na solo oustaz ci wàllu tënj googu léegi bu waree tënj nag bu demee ba ca bis ba nag ñu ne jeexal na tey mhm. nga xam ne dañ ko ne tey lay jeex day bàyyi ba ca guddi ga mu summeeku comme li ñaan guddi tey ngay jeexal baal ba guddi mu wara a summeeku taxaw ci nangam sangu wala nan lay def déedéet ni muy def daal mooy yéen ko tere woon hmm. dafa am lu ci bokkoon lu ñuy wax am mm. jëkkër mm. su xëyee mm. na toilette bu ko gis ko ko gis nopp ko te ko nopp bu ko nobee ne ko na maa la raw na tàmbalee jaayu na ah. tàkk <laughs> loolu rek la bu ci bokk yokkee ñetti fan rek ma bàkkaar ndax loolu biddaa la ndeysaan amut ay sangook ay déedéet ay sangook déedéet ak woowaat nit ñi ab cérémonie bi damay sum loolu tam amu ci <laughs> diw day summi ah te ku ne commencé nobal de comme ni nga ko waxee non jaayu rek boo xëyee ah, waaw ah loolu de moo xewoon ci jamono saaba commencé soccu ak lu ñor nga tey ci guddi nga jeexal hmm. suba la samedi kolon hmm. nob nga ne ko maalaaro boo boo ko nobee boo ko mën na ki dofa fële waaw te itam mag ñi buñ ko yëgee dana tax ñu man laa waajal xool kuñ lay jox moo tax ñu war koo yëg kon alxuraan ji ñu ne ko ci summi see dal waa ñëw dara. waaw waaw eh, yëg ne diwa ngay summi tey ñu ne ko ko mën a jël <laughs> ñu xool ba xam Oustaz Mbaye mën na koo jëlam. ndeysaan day ndeysaan ndeysaan dëkk am solo. ayca <laughs> dëgg jërëjëf. torka jërëjëf sëñ Baye xam naa point bo point tey njëkk point yooyu njaar ak yooyu. waaw jar nañ ko def tem. dëgg la yaakaar naa ne kooku su sa xarit moo ci topp sa xarit boobu nekk ci Espagne. sama waa ji te ñëwoon fi te gisu la. <laughs> ndeysaan ñu koy nuyu bu baax te ñu nuyu waa Espagne yëpp. Oustaz Alioune kooku indi na ab laajam. Hmm. nee na moom de mm, laaj bi sax ñëwoon na ay bis gële hmm. waaye dafa fekkoon tontu li fekk connexion bi daw yàlla hmm. bu mu daw tey nee na oustaz dafa nisaroon hmm, ci misaal ne su amee doom day diw laa ko bëgg a tudde hmm. mu nekk yéeneem mu am doom nag ay waajuram mel ne ku waxtaan ak ñoom daal ne ko bàyyi woon nga tudde ko diw rek ndax looloo gën a rafet ci mbokk gi wala nangam ak nangam mu daal di koy tudde ka ay waajuram wax muy laaj nisaram googu lu ko ciy war dara dara doo ko ci war waaye li gënoon mooy ay waajuram ñoom ñu bañ a ñu dañuy wax rek ñaan xam nga yaayu doxande ma nga fa la ca ndar ndeysaan dafa am ab sëtam mm-hmm. mu woo papay sët ba mm-hmm. ne man day damaa tollul fu may amee doom mm-hmm. te Alioune Sall mii bëgg naa ko de doom teeg maa may tur yu ma tuddee ko ko loolu laa waral ma am ca kër yaayu doxandéem aw turandoo fële ca gén la waaw kon loolu rafet na waaye nag waajur yi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu opposé wu bu ñu opposé wax nag rek far la par la force kii koy tudde mm-hmm. nan ko ñaan rek bi leen ko mayee mm-hmm. amul benn muskil ndax turandoo moom tabarkàlla bu dee tur bu rafet rek koo tudde baax na wa shukran est-ce que am na solo jërëjëf jërëjëf tabarkàlla am na solo beneen laajam am na beneen bu mu ci teg oustaz waaw waaw mais ba Mbacke ba ba ba la. sax laaj boobu rek la. waaw ba loo ci bi lay jur maanaam am kilifa baax na baax na waaye tam aussi amul limite ci wàllu boo sa doom yilif ka yilif ba mu am njaboot am njaboot ak yooyu. Hmm. est-ce que amul loo xamante ne aussi nga xaw ko bàyyi mu xam nga doom. Hmm. su ma amee doom daanaka dama ko bëgg a tuddee Maodo Faye. waaw hmm. ñu ëpp ma doole ne ma tuddee ko Ibamaar. bu fekki Iba Mar jubuwuma mhm. day def jeexantal ci doom ji dëgg la dëgg la dëgg la loolu waaw mhm. su fekkee damaa am xaritoog Maodo fay su ma mhm. ko tuddee fu muy ne jox ci kër gi rek pour man Maodo Faye ngi nii moom nga koy xoole moom laa koy xoole kon tur bi daa am lu muy dox lu am solo sax important suñ la suñ la ne nag léegi fokk naa mu koy tuddee ndax gis naa ko xam ne ki daf dafay dafay wujje jëkkër ji ne ko sa sa doom ji sa wujju laa koy tuddee mun na ko doo ko ko la ko tuddee Ah? ndeysaan mhm. mu dem tudde ko ko mm. ndax ja du jaar ca tuwa mukk mukk mukk mukk mhm. Mhm. dëgg la dëgg ah, la ah, moom kay oustaz am na bu xaw a mel noonu boo xam ne daanaka moo tax sëy ba ndax moom dafa jël doomi wujj wi tudde ko wujj wi léegi wujj wi bu bëggee wax keelu bon ci doomam la koy jaare gannaaw moo jur kii <laughs> diw yow jaar ci tur wi daal di tudd loo xam ne kenn mësu koo dégg ah. diw yow ni nga nangame bu ko defee kii xam nga du neex ci moom ndax day xam ne moom lañ ci jublu gaaruwaale la te bu waxee ñu ne ko sama doom laa saaga loo ci man lu am solo la <laughs> aw turo yéeme ah, Hadj Ibrahima Hadj Ibrahima nee na mm. jën waaye daa bañ Aboubacar bañ Omar lool leen ñaari mbaam am ñaari mbaamam mel na mu Aboubacar mel na mu Omar ah. mu leen di may ngoon rek mel mu wéqu ko ba loxo ba dem est-ce bi ñu koy waxtaan ci penc mi yonent mi ne leen mm-hmm. Omar ko wéq <laughs> ndax tur wala ñaar def jeexital <laughs> loolu am na solo oustaz te xam naa aw tur de oustaz ah. euh, bu njëkk dañ ci daan waxtaan maanaam daanaka yaay ji du ko yëg waaw nga xam ne ki jur doom ji ëmb neuf mois euh, moom mën na ko bañ ñu yëg ba waxtaan amut dañuy jekki-jekki rek ñu tudd doom ji pare moom géwél ba naan diw lañ ko tuddee ca la koy déggee te daa mel ne moom it waroon nañ ko cee boole de xanaa walaay ndeysaan man de loolu mësu man de loolu mësuma dal ñëw toog mhm. fi nga xam doom waaw sa deuxième jour wala kii bu fekkee tal nga ko. ndeysaan ma ma laaj sa xalaat nga laaj sama xalaat. dëgg la bu nu dëppoo nu jox ko. Mhm. ndeysaan loolu am solo. waaw ndeysaan parce que yéen ko yéen ko ko séq nag. dëgg la de dëgg la de man mi ba ma déggee loolu nga wax ko. waaw ñi a tudd ñëpp seen yaay wax ku ñu leen tudde waaw laa ci waxut de ba léegi tuddee gu ma ñi daanaka ñi ma bëgg a tudde waaw góor ba ki ma tudde Oustaz Alioune Sall sax dama ko ne sa bàyyi laa ko bëgg a tudde mu ne ma tudde ko Oustaz ndax sa digganteeg moom ndeysaan yàlla xam na grand théâtre lañ jëm Mbàkke inshallah ci laa lay seexalee <laughs> bu leen toxal si nag déglu mbokk yi dañuy déglu xibaar ci déedéet amuñu xibaar sax waaye xanaa kon ah kay ñu xaar ba xam lu ci teg Oustaz Alioune waaw ñu xaar leen ba xam lañ lañ wax comme ndigal waaw inshallah inshallah tabarakallah oustaz Alioune kon nag li ci tege mooy jaajëfal Ndeye Mariam Ndiaye jaajëfal Aliou Diarra ak Maodo Faye tabarakallah ci xabaar bitim réew yooyu insha allah douze heures treize heures daañu ñoo gën ko yaatal bu mu gën a leen nañ insha <laughs> balaa boobu ñu ñëw nag ci les ci laaj yi sëñ Mbacke yaakaar naa ni ñu ngi woon ci laaju euh, sa mbokk mu baax mu nekk ci Espagne <laughs> euh, te yaakaar naa tontu nañ ko bare tontu nañ ko moon yéene ju tuddee mbokkam mm. euh, kii tubarkàlla Amsatou Diallo moo ci toppoon oustaz ki ci topp mooy Amsatou Hamza moom dafa nuyoo rek euh, mu dagg. Mm-hmm. waaye jotul dellu si waat. Mm-hmm. kon yaakaar nag ki ci topp mooy. Euh, Cheikh Diop mm-hmm. Oustaz Cheikh euh, dafa wax ci dafa laaj isastaman saqat ne dañ ko xóotal. yaakaar naa am na lu mu njëkkoon a jiital sax si Mbacke. su bu fekkee bi waaw Cheikh daa mel ne daa duggoon démb ci guddi am laaj bu mu laajoon te nee na tontu la daal daa mel ne ñi nga tontoo wax ko ne ko ab tolluwaay la. mooy ki doon laaj ne ñi nga xam ne dañuy liggéey. ci rajo wala télé boo xamante ne nii dañuy wax ne ay fo moo ko moo ko sos mm-hmm. yu demee noonu mm-hmm. euh, te ñooña duñ wax mukk ba wax ci mm-hmm. nga waxoon ca la nga ca tontu démb nee na ndax léegi kon kii liggéey ci ab baar wala len naka su noonu moom it du wax ne rek toog maanaam mbirum tolluwaay la wala dara jërëjëf xam nga mbirum mbàkket laaj tontu yi duñ ko def taxanum silmaxa déedéet taxanum silmaxa mooy matt gu tooy goo lay yemale diine ji duñ ci dem ci wàllu xel mi kon xanaa ba nangam kon xanaa ba nangam de jaayum sàngara dafa xaraam dafa am texte mm-hmm. kay jaay ka koy jàppale ka cay nangam mm-hmm. lee nag bu amee texte la rajo ci boppam moom amul texte mm-hmm. araam nga ak dagan boroom rajo bi it déterminé lañ cay waxtaane dëgg la de waaw waxu leen leen waxtaan leen ci lii déedéet thème bu ñu jot nag ñu waxtaan ca jeex na kon ñaari affaire du benn du benn. dëgg la waaw. wa shukran ci mhm. laajam bam sala bi. jërëjëf tontu woon nga ci démb sax xam naa nag maa jëmmi tontoo ma nii wala lii laa bëgg nga wax ko ci wax ko ci. daral ci kaw kii ak dóoral loolu moom dëddul noonu. waaw ayca laaj bi ci topp ban la. Mhm. jërëjëf mu nekk nañ ko gën a xóotal istamoon shaqat wa azin li rabbiha wa xoqat. waaw xóotal gi moom xaw ma lu mu ciy jublu. Mhm. Euh, parce que man daal li ma ci xam mooy. ismun mm-hmm. shaq daal inshiqaq daal. Mm-hmm. yàlla ngi ciy jàngale àdduna bu tollee ci di tukki. Mm-hmm. ismun shaqat. wa ashin rabbiya wa xuqat. bu àdduna di bëgg a tukki asamaan si dajjiku te moo yay dajjiku. moo yay topp ndigalu boromam. te topp ndigalu boromam moo ko yóbbee loolu. wa shukran ci laaj bi. waaw. jërëjëf mbokk mbaax mu Cheikh Diop kon ki toog mooy kër Baabu Ngóone lay wootee Oustaz ci mm, moom itam indi na ab laajam benn laaj bu bi mi ngi ko jëmee ci alxuraanul karim mm-hmm. euh, defe naa du sori suratu suxruf mm-hmm. euh, suñ borom dafaa wax ne wa ma zalamnaahum walakin kaanu hum mm-hmm. yaa maaliku li yaqdi alayna rabbuka xaala innakum maakisoon <laughs> moom lu bëgg nga tekki ko Oustaz <laughs> jërëjëf <laughs> la góor gën a woon yàq nga sama añ bi <laughs> kon mhm. waa sawara mhm. ñoo nekk ci lu métti métti mhm. lool ba bëccëg ña nga ca pexe amul ñu dem ca Malik Malik mooy gardien bi mooy garde sawara moo yor caabi mooy dugal ku ñëw liste jox sa liste kuy génn moom mooy dem tabarkalla dossier bi ñëw mu génn la léegi na gaa yi dem ci moom nag ne ko nag yaa Malik <laughs> ud'unaa rabbaka li yaqdi alaynaa wala bu li yaqdi alaynaa rabbuk waxal sa borom nanu rey nanu rey nu noppalu boobu de métti na xanaa waaw boobu na Malick mhm. toog ñeenti at ni këj ni moom mën naa du du muy <laughs> foofu rek du ndekki ji du reer du añi que ne fucc ba muy ñeenti téeméeri at xanaa moom la yenn wisil yi di toppandoo di ñàngal rek tere waaw parce que wisil daa war a ñàng ah. gis nga gendarme yi. waaw alkaati yi. waaw ku ci ñàngut xamal li ngay def. man de ni ma leen ragale. <laughs> waaw. boo ci ragal mi ngi ci biir. ah alkaati. ba mu nekk këj nag ba ba coow la jàng mu ne leen innakum maakisuun. wallaay ndeysaan ngeen fi yàgg. waaw damu leen. waaw innakum maakisuun waaw. <laughs> nga xalaat ne wax yu nu malaaka daa war a ñàng. damaa ba déedéet damaa bëggoon mu ñàng. ah yaa ko kii noonu. <laughs> gis nga Mbàkke. gis nga booy lire texte. <laughs> xam nga da de dégg ngaa gis benn virgule. waaw gis benn point de point d'interrogation. Mhm. waaye point nangam nangam. Mhm. loolu day wax ak waa ciy wax. dëgg la dëgg la moo tax booy wax di ca toll. Mm-hmm. gisuloo fi ne bu bu bu su dee si di jàng alxuraan ca Kaaba ga. Mm-hmm. da nga jékki-jékki rek di gis foofu day yëkkati. Mm-hmm. day ndeysaan. moo moo jiite timis. waaw bu ñu waxee day jékki-jékki rek. Ah, ba baase ko. wallaay ndeysaan loolu gaa yi wax riimoo faala. dëgg la de waaw. wallaay <laughs> eh, eh. <laughs> loolu lu ngeen di dàq ñuy jàngal musique la ñuy jàngal riimoo ak faala. Ah, fi nga war a yëkkatee fi nga war a wàcc. mu ngoog. noonu la bay <laughs> daara gi la daane la ñoom seen yooyu dañ koy jàngal jàngal <laughs> woykan tabarkalla waaw est-ce que am na tey booy booy déglu ndongo caam ci raaya waaw noonu la ko jànge de waaw ci sëñ buy da koy du da koy suufel yàgg mu toll foofu da koy yëkkati ci kaw ndeysaan est-ce que booy topp xaadim gi ba mu toll ci muhammadun rasulullah waaw <laughs> ndeysaan waxaaka saa noonu la yëf yi mel kenn bàyyi xaalis yi waaw mu ngoog barkal wallaay ndeysaan bàyyi xaalis yi bàyyi xaalis yi ji moo ko wax ba ko noonu ba yóbboo ku di nga wax jiyaa ji ak borom waaw mu yuux ba nga ne dootu wàccee mu tàmbalee réem <laughs> wa shukran <laughs> ah, loolu aar la aar la ma Moussa aaruma Moussa bi laay moom garaaw na trop mais gis nga ñi ko doon wayal mm. Maama Ndiaye xam nga Maama Ndiaye. ah yow nag jàngkat yu mag yaa nga xam. waaw ñoo ñu doon jàng. yow ku la dégg day yaakaar ne mag nga daal ku fekkee lu yàgg <laughs> loolu lay sii te fekk yëpp ci mag ñi nga ko dégg. mel ni Assane Diop. waaw <laughs> mel ni Assane moom mag la. <laughs> <laughs> alal moom ca politiciens yu njëkk yi la doon àndal ayca <laughs> imaam teg na ci beneen laaj euh, mm. laajam bi nee na maanaam tey koo xam ne doo doon tukki mm. mel na tey jóge Dakar war a dem Kaolack mm. mu julli timis ba pare bis bi war a départ mu xalaat ne gee ci yoonu la koy fekk mu daal di julli gee gi fii ci Dakar te départ gul muy laaj ndax loolu mën naa ne waaw bu fekkee génn na këram ba dem ca garage ba mm-hmm. bu timis jotee mën naa julli timis ak gee mm-hmm. bu fekkee génneegul këram nag mm-hmm. sañu ko te tubarkàlla imaali mm-hmm. <laughs> bu génneegul këram sañagu déedéet waaw sañagu ta boolee ka waaye bu fi jógee dem ba marché gële mm. gaar bi taxaw timis jot mm. mën na faa julli timis julli gee door a yéeg door a yéeg ci kaar ba ndax musaafir la léegi départ su ko fekkoon aéroport it mën naa julli timis ak gee te yéeg wa shukran wa shukran <laughs> am na solo ay ca imaali jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf oustaz ki ci topp mooy sëñ mbokk mu baax ma li ci France Dora Sylla mhm. Dora tubaarkalla moo doon jaal suñu mbokk mi Pape Ndiogu Sall waaye juróom wu jigéen moomu wàcc liggéey mhm, te xam nga ne émission bi tam dafa dem ba boole ak bokk léegi mhm. wallaay ndeysaan Dora nga ah. France moo jawa nga Japon boo leen boo leen fekkee ci aj ga sax sa yaram daw wallaay ndeysaan nga xam ne ñi ñëpp Sud FM rek moo leen boole moo leen yàlla xam na ko waaw ba ñu doxalante ka demalante fekkalante tabarkalla ña nga téléphonante waxtaan yal bi ñu joxante ay bi neen foofu ku ne di jox point de départ ku ne naan maa ngi fii ku ne naan fii mosuñu gisante waaw ba ñu mujj rek ñun ñëpp ñu gisante ndeysaan <laughs> ay gore neex la de neex la kenn du ko fàtte mu koy jàll nag yaayam ju baax jooju tabarkalla ndeysaan eh, moom itam mu nga ca ca ca dëkk ba ca Suisse waaye teew Suède te yaayam gaañoo fi xamaloo tam dara gën ko métti dëgg la ñu koy jaar ay mbokkam yëpp macha mm-hmm. allah kii ci topp ba sëñ Mbàkke mooy soxna may mën a jóob waaw ndeysaan oustaz soxna may mën a nee na <clears throat> euh, ku ràkk bu jëkk a raw ci timis mm-hmm. boo koy fay mm-hmm. ndax dangay ngay jàng saar wa ak fatiha ak saar wala noo koy faye jërëjëf mm. raw ci timis mm. ku raw sax ci julli dafa am ay jëf ak i wax yu la raw ay jëf moo la raw ak i wax dañ koo rawee dañ koo rawee ñaari rakka mu fekkee benn kon ñaari rakk yi mu fekkiwut bu ci nekk daa am faatiha ak saar am déet ñu raw ko ci ay jëf jëf yoo xam ne bi ñaar amee toogaay day am ca diggante ñaar ya kon su jógee di indi rakka di indi rakka ba am faati ak mhm. muy deuxième rakka mu toog taaya mhm. mm. mu jógaat indi rakka ba ak saar mhm. muy deuxième rakkaab la ko faat ci julli ga di troisième rakkaab moom mu toog taaya wat sëlmal wa shukran mu ngoog ngoog naa am na benn mbàkki mu ni mu ku fekk imaam waaw ñaar rakka yu tusbaar wala takkusaan wala daal mu tawaa ñaar rakka daal ka fekk muy taaya nga nga dab ko ci ñaar rakkaa hmm. léegi booy fay ndax dañ ne ndax ñetti taaya ngay def waaw julli moom saaboo toogee hmm. meeral ni oto bu taxaw rek te fayuñu ko hmm. relantir jeex na takk saa boo toogee daal logg loggalal taayaal ndax ñàkk taaya mën naa tax sam xel dem cil ma xam mbaakool te su xel demee cil ma xam mbaakool rek montre bii dox jëf yi di la taxaw waaw kay mu ngoog <laughs> kon nag may mun a sa laaj yaa ngi noonu mm-hmm. xaasum mbay Mbàkke xaasum mbay Euh, Mbacke Bawal ñu ngi koy nuyu baax di auditeur yu jotaay bi mm. moom indiwut ab laaj oustaz ay siyaar la indi ak ay nuyoo ak rafetlu jotaay ñu delloo koy siyaar delloo ko ko tawfiix te te te ci jàmm dellu ca kër ga jàpp Ndeye Mariam Ndiaye mm-hmm. rek <laughs> ren may Ndeye Mariam nga jël ndeysaan jàmm na <laughs> na solo oustaz tubarkàlla a bàyyi faal kër seega di wote Mbacke Bawal mm-hmm. Jurbel Mbacke Bawal waaw moom tamit ay siyaar ah. mm-hmm. góor ay siyaar la indi boobu ñu koy delloo ay siyaar moom tam tubaarkalla di ko ñaanal tawfiix duggam am na solo ci wax wax soxlaat ak yu mel ni yooyu mhm. barkalla a baax ayca Mbàkke sa xarit boobu sa ba la nekk ci Amérique te watoon biig mhm. moom moo doon laajte euh, sa doomu xarit tubaarkalla moo ñëwaat oustaz euh, gannaaw ba mu ko dugge woon biig waaye mhm. moom itam xam naa ba mu ca àggee ca war a tontu connexion ba daal di mel ne lu xaw a jàppandiwut foofee ci bitim réew ñu ngi koy nuyu baax a baax nee na naa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan fa axsaynaahum fa hum laa yubsiruun moom la bëggoon nga ñëwal ko ci suñu borom nee na daa am ñu ne ci àdduna waaruwunu mm-hmm. <laughs> la leen tee waaru ñu leen ñu la fa waaruwul ba mu dugal leen nag ci loo xam ne mm-hmm. moo tax ñu yónni yonent bi pour mu waar ñooñu li mm-hmm. tunzira qawman maa unzira abaahum fa hum xaafiluun dégg nga ñooñu nag ñu mel noonu dañuy am baaraas ci seen kanam baaraas ci seen ginnaaw ku añ kuñ baara ci kanam baara ci ginnaaw nag avancé ak retour ak euh, ak mm-hmm. du la yomb suum lay bi suurum duñ gis dara yàlla ñu ci yàlla musal musal leen amiin yaa rabbal wa shukran jërëjëf Oustaz Alioune teg nañ ci beneen laaj mm. beneen laajam bi mooy waaw daa am loo ci bëggoon dugal foofu ah, ayca beneen laaj bi nee na Oustaz ñaare booy tàmbali waxtaan yi euh, daa am nuyoo booy nuyoo wala ñaan gooy ñaan moom la bëggoon nga ñëw ci tekkil ñu ko muy xaala Euh, bu dee damay jàng aaya ji daa mel ni ci xaala lay tàmbulee rabbi israh li zadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xaw tabarakallah sëñ Mbàkke yonent yi ñaar la ci yàlla yónni mission wax mm-hmm. bu gën a siiw mm-hmm. kenn ka Moussa la kenn ka Muhammad la yàlla yónni leen mais seen mission dafa am wax waaye dafa am waxin mu ne mu ne mu ne mu ne Moussa demal ca Firawna mhm. waaye nag fa quula la qawlan layyina te Moussa dafa dotam te ko dotam wala ku dër mhm. naqar dër da ko yomb <laughs> ah <laughs> ku dër fi ne booy wax ak moom boo ko xawee toppandoo rek mhm. ak nu mën naa tukki si dëgg la de dërë moo dërë dërë gën a métti sax ñoom ñaar ñëpp a métti xam nga dotom sax dana wax waaye dërë moom day bëgg a wax te wax gi du jàpp ni waaw mais xam nga bu bu bu kii ñëwee <laughs> mhm. Moussa ñëwee daal ne yàbbi iseh yi saddi yi waaw ñépp toj <laughs> yow fi yaaw na <laughs> yow fii aw na ci yow yañ may wëññi <laughs> day xaw a yéeme de oustaz <laughs> kon ñëppay toj wallaay ndeysaan <laughs> léegi nag bu amul dënn bu yaatu bu oh. ñëpp tojee mission ba yàqu allahu akbar allahu waaw eh, kii man dëgg la moo tax kuy wax ci pinj mi ku nekk mhm. ñaan googu mhm. da ko war di jiital mhm. rabbi israh li sadri yoon yonent bi nag yàlla na ko yow bala ma nga ko ñaan ma may la ko yow alam nasrah laka sadrak ah, maam sa sox yàlla moom bu bu bu lay jox rek fàttali la ba pare doon yi jëlal mooy waayam hmm? mooy waayam waa lay defal waayam mm-hmm. ndeysaan dalal xel ba pare waaw rabbi srah lii sadri mm-hmm. yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma dënn bu yaatu ndeysaan dënd boo xam ne masala yu bëri ciy xaj mm-hmm. dënn boo xam ne nit ñu bëri ciy xaj dënd budul parparloo <laughs> ndeysaan rabbi srah li sadri mhm. loolu la wax loolu la suñu borom <laughs> ndeysaan suñu borom waaw mu ne ko wa yassir lii amri wallaay ndeysaan mbir mi nga ma sant ci mbir yi gën a jafe la bokk mhm. mooy communiquer mhm. mu ne ko waaw mu ne ko waxlul uqdatan min lisaani lamiñ wu fasu ba tax boo waxee duñ la xam feccil ma lamiñ wi eh. su ko defee yafqahu qawli yàlla mu dégg allah Moussa bi mën naa ñaan de daan na ko nag waj ali waziran Mhm. damaa bëgg nga wutal ma benn ministre mhm. waaye bu dee jàmbur ma yàqule mhm. bu bokkul ci sama parti bi ma yàqule waaw aaruna axi cay aaruna axi oh. <laughs> pourquoi aaruna axi <laughs> waaw Mbacke pourquoi waaw gis nga sunu politique bi li li li ci gën a doy waar hmm. transhumé yee koy waral ndax sa yëg-yëg ak yëg-yëgu kii du benn mhm. yëg-yëgu kii moo daa bëgg fu mu làqutu ak fu mu amee mhm. moo ko tax a ñëw ci yow mais ñun dañuy bañ nga falu fal say mbokk fal sa fereer fal sa nangam Moussa falu ne yàlla falal sama fereer waaw lu am solo la ah, lu tax moom mu man ko bi ko tubaab bi bañee mhm. bi ko tubaab bi bañee waaw te te alquran bañu ko waaw li alquran wax mooy gën li tubaab bi di wax Mm-hmm. su boobaa bu dul mbokk moo bokkal ndey ak bàyyit mm-hmm. muy mbokk moo xam ne yéen a kon far seenu parti mm-hmm. nekk ci mbokk di ko doxal ba mu taxaw yi la xamboon xamba ko ba ngeen àndee defar waaye bu ma ruq ja fàqee fa la ñëw moom li ko tax a ñëw day làqu si mbaa wut lu mu am dong moo tax mouvement yi bari a ak yàlla mu ne am na ko usdud bihi azri waa wa ashriku fi amri mm-hmm. résultat yi mooy kay nu sabbika kasira a naskuraka kasira innaka kunta bina basira xaala qad ujida su'laka ya Musa li nga ñaan lépp may naa la ko ndax mooy doxal mission ndeysaan wala xad mën nan na <laughs> la ko ca tegal <laughs> suñ borom de dafa bind demande ba pare ne ko maa ngi yoolu woon démb indi motif bi waaw waaw ne ko maa ngi laa koy doyee mm-hmm. maa yow la woon démb. maa yow la woon démb wala xam mën naa aleyka maratan uxra. defal naa la lu ne laataa nga may ñëw. Ah. moom daal yi mu koy fàttali noonu xaw naa kii de. fàttali ko an yàq fii fii tabut. yàlla day ngan la sëñ Mbacke. kii maan dëgg la oustaz. même sax ci ci ci rabi saxri bi. Mhm. nga tudd ci léegi euh, dënn bu xat. dënn bu yaatu. waaw dënn bu yaatu. waaw mu mel ni laay ji képp kuy jiite. Mm-hmm. waaw war nga koo jàng nu firil la ko mm-hmm. suñu député yii di fas yéene falu mm-hmm. war na leen wax yii ndeysaan ndax ku jiitu kat ñu la sa bopp bu rëy mbaa ñu la sa daadu rëy waaw ci lu wér bu amul dënn bu yaatu nag ba mën a encaissé loolu dem parce que Moussa bu mu wax waaj dafa ba nag na ko danga yow ab def nga <laughs> te soo gore woon doo def ni nga def <laughs> yow maa la yow wallaay ndeysaan alam rabbika fiina walida loo am man waaye wa faalta faalataka waaye jógal fi waayow wallaay ndeysaan allahu akbar loolu sëñ Oustaz Alioune merloo na ko dëgg la wallaay nga gis sa bopp dëgg la kon ñaan gi li muy tekki rek sa magee waaw bi ñu koy na hmm. ni nga am na ku lay seet dañu kenn sa daa mel ab dof waaw ñu ne am na ñu ne am na ñaar ñu lay seet waaw da nga ne kenn sa daa ab dof kooku da daa fii la nekkoon sax hmm. ab dof la gën a nuróon hmm. xam diabolisation waaw waaw mhm. mooy bu ko jox benn benn benn dayo kon ñaan gi oustaz li ñu ciy déggee rek mooy euh, maanaam kii bëgg a wax man ngaa wax ba noppi ñun la waxoo fi dara waaw man ngaa wax ba noppi ñu saboote li ngay wax waaw wala yow mi bëgg a wax sa dënn war naa man a yaatu nga soog a wax très bien hmm. saa bu nit waxee ca la nga wax mhm. nga jël la nga wax di tontuwaat. Mhm. nga jël la wax di tontuwaat. Mhm. moom la mu bëggoon am na ko moom. Mhm. bu des nag yow li nga bëggoon ndax yow am nga ko. déraillé na déraillé na la ah, est-ce que allahumma ighfir li qawmi fa innahum laa ya'lamuun ndeysaan tudd nga Moussa tudd yonent yàlla Muhammad sallallahu eh, moom lu ne teg nañ ko ko ci ay coono. waaw dafa mel ne xeetam moom la jël nañ ko wit <laughs> nee nañ ko woon ñu yàlla dégg naa sax mas nañ ko wax ne ko Moussa mii daa am feebar bu ne ci biir tubayam ji waaw moom lu ne waxal nañ ko lu ñu waxal ki lu nit ku ne waxal nañ ko Moussa <laughs> rabbi israh li oustaz xam nga oustaz bis bi nga yeey ñu ci benn affaire. Ah. di nag penc bi ku bañ ku bañ tudd la. Ah. doo ko defar. dëgg la de waaw ab sëriñ laa rek nu ma tudd hmm. am na say gang hmm. lu tudd ñu dal sa kaw hmm. non doo doo defar dëgg la de dëgg la beneen bi ci topp loo ne kenn ma ko wax rek ku la gën wax nañ ko ko Moussa mii lu ne wax nañ ko léegi yonent yàlla Muhammad mi ma tuddaat noonu te muy ñoom ñaar nga ne ñoom lañ ëpp lu ñu leen waxal moom daa mel ne suñu borom da ko ne alam nasrah alam nasrah moom mooy lan alam nasrah lak sadrak ndax mayuma la dënn bu yaatu ba ma Moussa doon ñaan Moussa moom moo ne woon rabbi sarax lii kii nag dañ ko ne nangam. waaw hmm. moom daf ne ko dama la koy may bala ma koo ñaan. Hmm. ndax jumtukaay la boo soxla. alam nasrah laka sadrak hmm. mu ne ko ah kay. mu ne ko wada'na anka wizrak mu ne ko ah kay. allati anqada dahrak mu ne ko ah kay. wa rafa'na laka dhikrak waaw mat na. continue nag ba cay saaroo ca kanam. waaw alam yajidka yatiiman fa aawaa. mu ne ko ah kay. wajadaka daalan fa hada mu ne ko ah kay wajadaka aylan fa mu ne ko ah kay mu ne ko kon wéyal parce que waaw man yatima falaat rek waay bul a yuuxu ko lay laaj. man nag léeg moom dama naan moom yàlla oustaz ay affaire am amut amut solidarité maanaam amut kii amut démocratie. waaw waaw ndax ca aadama daf mel ne yàlla da koo faral. Eh. dem nëbbu malaaka yi affaire yi jox aadama réponse bi mhm. yonent bi itam yi nga wax nii daa mel ne yàlla koo faral trop nag <laughs> waaw faral na ko de euh, faral na ko wala njiitee doxe noonu faral na ko mbàkke mm. ndax euh, jumtukaay yi muy joxe mm-hmm. ku ko dékkoon ni mu ko joxe mu mel ni yow la faral mm-hmm. Mm-hmm. loolu rek la day mel ni yow la faral ndeysaan fekk ni ni nga jële jumtukaay yi la waaw parce que fi ne bu ñu fi taajoon tey ndékki mhm. waaw mayaa géey indi fi ndékki ndeysaan waaw eh, bu bu bu saa mbay xiifut mhm. benn xamp lay dëgg la de man su ma xiifee waaw dana xamp-xamp yu bari dëgg la de bu fi mu ko naa nekkoon ramassé ko dëgg la de ne ko tépp séddale bi yàlla ngóob. <laughs> parce que am na solo oustaz jërëjëf <laughs> loolu am na solo. ndeysaan am na solo loolu wax yàlla kenn mës koo gis. waa ji kay laajam bi moom yéeme dëgg la. waaw waaw ndekete aaya ji oustaz doo ko kii noonu nit ñi naan amin waaye am na solo. moom tubaarkàlla moo tax su may tàmbali bi ma ne bismillah rahmaan rahim. Hmm. daal ni rabbi sarax li sadri. ndeysaan ndeysaan yaay Maodo bu dee ko wax mu ne ko muumoo ko mu ne ko muum oh. may muum ma ko di ndeysaan <laughs> ndeysaan sunu sunu bàjj eh, yërëm ko de yaa ngi wax waxi jàmbur mu ne ko di ba yaay Maodo mu ñëpp ko bokk ndeysaan ndeysaan yal na ko yàlla yërëm bëgg daa métti mu ne lu ma ci xam tey am na solo <laughs> tubarkàlla beneen laaj bi mu ci teg oustaz tam ab aaya la mhm. moom dafa mel ne daa bëggoon a xam fan la nekk ak yu demee noonu ah. waaw inna allaha la yuxayiru ma bi xawmin xatta yuxayiru ma bi anfusihim Euh, defe naa du sori sóoratu ut aaya onze yooyu. Mhm. waaw oustaz aaya jooju lu muy tekki. aaya ji li muy tekki mooy. Mhm. toog fi yàlla changé ñu penc mi. yàlla nee na du ko def. Mhm. da ngeen def li ngeen man ma def li ngeen mënul. inna allaha laa yuxayyiru maa bi xawmin. allahu akbar lii la ci yéen. yéen a koy soppi. su ngeen ko soppi man du ko soppi. ndax ndax daf leen sàppeegul. xam ne feebar nga taxut a faju waaye ku yëg ne feebar nga jóg mhm. am saalim ah, <laughs> waaw waaw kay dama ne xam ne yàlla fulaam baas na foofu waaw mhm. looloo yëf yi moom daal dangay def li nga man mhm. ba mu jeex tàkk la nga tële mu tàmbali ci defal la ko ba mu jeex tàkk jàng na ñooy nga ba ngay joxe misaal ma ci baykat ba waaw ruuj waaw man nga ko Mm-hmm. jeex na tàkk France wala ji man nga ko mm-hmm. jeex na yàlla na la puusal nag comme mënoo taw ma tawal la mm-hmm. <laughs> ndeysaan <laughs> bu tawee <laughs> walaay ndeysaan sax ñax mi sax mun na béyal oustaz Ahmed Dame Ndiaye moo koy jàngale yàlla na ko yàlla sàmm macha allah macha allah eh, ma doon mbokk moom sa mbokk sa doom baay boobu nit ci mooy sil la loolu la indi woon ci ay laaj am na solo loolu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ki ñu topp oustaz Mbaye mooy mooy soxna Koura soxna Koura Koura Guèye wala waaw Koura rek la wax ma ni ko yow moom yaa fi tudd ko ko moom sénégalais donc am Gambie mhm, <clears throat> mu ni kuy julli gee maanaam dañ ko yóbbante yàgg na mhm. mu ni jën waay ngi di julli gee fàttewuñ julli tàkkusaan mhm. euh, léegi nag nu ngi koy remplacer mooy su boobaa gee gi yàqu na tiwis ja yàqu na ñoom ñaar ñëpp na muy def mooy day day fay tàkkusaan julliwaat timis julliwaat gee noonu lay def mm-hmm. très bien mu ni moom benn mbokk ma ngi ni duñ julli de ba crampe mm-hmm. léegi ba mu crampee mu subhanallah mm-hmm. xam naa julli sëlmalaat julliwaat mu ne lu lu mu waroon def noonu noonu ma def dong la war a def julliwaat <laughs> noonu dong dong la war a def crampe si gannaaw subhanallah ah waaw parce que def ne bu leen dara feeñoo ci julli gi wax leen subhanallah isa naabakum shay'un anis salaa wala an salaati léegi noonu lay def rek tubaarkàlla ne fa ñu ko yëf yëf bu crampe bi ñëw julli neena na bu ngeen gëmmantoo dem leen tëdd nelaw mhm. ba féex ñu yeewu ñëw jàppati julli bi jafewul kat sallallahu alayhi ba tey lay lan mooy xajale sarax ak maye <laughs> sarax maye addiya mhm. yëf lañ sàndalin hmm. mhm. hmm? sarax koo yërëm nga koy def am déet sarax nga koy def may koo naw nga koy def wala koo yaakaar ci moom Mm-hmm. addiya kuy liggéeyal yàlla lañ koy jox mm-hmm. leer na de waaw <laughs> mënatu fee gën a weer yéemu dañ te yéemu sarax moom ku ñaari nit ay sàkku ab ndimbal mel na ku yelwaan ñu sarax ko nga yërëm koo yërëm waaw may nag koo bëgg lool jël dara may ko. jax na ah, addiya nag moom kuy liggéeyal moom kuy liggéeyal yàlla lañ koy. nga ne ko defal ma ko ci. waaw <laughs> kuñ ko jox dina ko ci liggéeyal yàlla. Hmm. lañ la jox déedéet sa ko. ak may lay doon wala mu def sarax. tabarkalla am na solo <laughs> kii waan dëgg la de. loolu eh, tabarkalla Oustaz Mbaye bala ñoo dem Oustaz ci laaju julli gee boobu. ndax julli gee manees na koo julli te waxtu wi jotut maanaam waxtu wi jotul li ma ci jublu mooy noddaguñ ko maanaam jàpp nga ne jot na ci sa montre mais jàkk ji noddagut bu dee jigéen mu julli ci këram ndax lool man naa ne waaw sëriñ Aadi ak sëriñ Mbàkke bu sa mëla day radiyallahu taala anhuma amin dañ doon jàngale ñu ne diggante timis ak gee war naa mat salaasu darajaat mm-hmm. wala arbaw darajaat ñeen maanaam ñeenti ñaar fukk mm-hmm. waaw boo ko defee ñeenti ñaar fukk mooy waxtu ak ñaar fukki minute mm-hmm. ñu ne loolu war na koo mat li feeg matul ñaar waxtu ak ñaar fukki bu nu jullee anticiper nañ. waaw te calendrier yi ñu taf moom ñaari waxtu rek lay doon. waaw waxtu rek lañ cay yemal waaw 19 h mhm. kon waroon nañ caa teg 20 minutes. Mhm. waaw seen diggante ñoom ñaar. am na solo wa shukran. jërëjëf Imaali. waaw tabarkalla mu koy waxtu julli moom xam naa ne xaw ma kañ lañ ci juboo rek. <laughs> ndeysaan waaye moom daal mu ngi noonu rek. Mhm. acca waaw. ki ci topp mooy madame Jonk ñu ngi koy jaajafal baax baax moom itam oustaz indi na ab laajam hmm. ginnaaw bi soxna Koura noppee dafa mel ni jigéen ñi tubaarkaa lay jàmbaar lañ eh, madame Jonk nee na oustaz kii dafa door ak julli hmm. maanaam tàmbali julli boppam moom dong hmm. ba mu kàbbaree ba tàmbulee tari am mbooloo ñëw daal di sos ak julli goo xam ne julli mbooloo la xam naa day jigéen kon aw góor sos seenu julli mu ne ndax day bàyyi ak julleem dem dugg ci biir mbooloo ma ndax julli mbooloo mu am ko wala day wéyal ak julleem noonu rek bu fekkee rukoogul da mm-hmm. ko fa naan ñukk dem àndeek ñoom mm-hmm. bu fekkee rukkoo agul mm-hmm. bu fekkee xas na rukkoo nag day mottali lim nekk bu fekkee mën naa mottali ñaar mu mottali ñaar ci sëlmal dem fekki leen waaw waaye daal comme rukkoo agut moom bu ko nekkee noo ko fa njukk dem fekki leen du jar du jar muy sëlma bu xasi déedéet jékki rek waaw waaw comme rukkoo agut hmm. dara fasoogut insha allah hmm. waaw wallahu taala alam wa shukran jërëjëf oustaz madame Diong jërëjëf euh, tubarkàlla beneen bi ci des nee na moom day euh, dafa fàtte safa ak wétër hmm. julliwu ko ba ca ëllëg sa ba muy julli suba daal xelam dem ci ne ndeke julliwu doon safa ak wétër muy laaj ba xam loolu moom lan la ci lislaam waaw bu fekkee bi muy julli bi muy fàttaliku ma nga ci ay quatre heures du matin trois heures du jàpp yooyu diggante bi mën fee julli nangami rakka. Mm. su boobaa day safa witar julli fajar julli suba mhm. bu fekkee nag daa xëy ba ba seet nag julli wu leen faat na ko rek tubaarkàlla mhm. na jéggalu boroomam tubaarkàlla mhm. am na solo jërëjëf beneen laajam bi mu ci toftal oustaz laajub actualité la di xew-xew bi ñu waajal dimanche ak jàmm nee na ki nga xam ne moom wax dëgg yàlla dana dem wote ji waaye fasul yéenee woteel kenn maanaam sanction daal lay def rek jël xëkk moo xam nañ koy defee lim ci jublu nag mooy mel ne yàgg naa wote di séentu ci nit ñi ay résultat waaye mu mel ne ñam woteeloo nag di leen fal ñëpp ku ci ñëw yàgg ñëpp ay yem mu daal di faf laaj loolu nan la ko lislaam gisee lislaam moom ni mu ko gisee hmm. mooy ku bon a am hmm. ak ku bon a bon ak ku bon a bon a bon hmm. waaw loolu la lislaam gisee waaw suñ Seexuna Abdul Wudoon moo koy wax tubaarkàlla ku bon moo am ku bon a bon ku bon a bon a bon nga bokk sax alin ku ci tànn ci ñett ñooñu moom genn bon gi de borom genn bon gi kon yow tam ba demee ci liste ya seetal ci liste yi rek ku mel noonu nga jël su jaan wàcc na yow muy jëf nag diggante mag boroomam la yow tànn nga rek lañ la santoon mhm. bu ñetti ñun fukki nit daal ak juróom ñaar mhm. bu ku nekk ne nun ñii noo baax mhm. yow seetal ca ñenn ñooña kenn rek ne leen yéen ñi yéen a tane bu fekkee ñëpp baaxuñ comme ni ko waxee léegi na seet ña ca tane rek ndax tànn mooy seet lu baax nga jël la ca gën wala seet lu baaxut nga jël la ca tane wa shukran macha allah alhamdulilah. am na solo am na solo madame Diong madame laajam bi am na solo lool mm-hmm. oustaz. jërëjëf madame jigéen ñi laa mel ni jël nañu ndam li wallaay jël nañu ndam li oustaz ki ci topp mooy Mouhamadou Mouhamad. waaw mm-hmm. dëkk Touba. waaw voilà boobu Mouhamad dëkk Touba noonu la bindee. waaw mu ni dafa bëggoon rek nga gën a insister. Mm-hmm. ci indemnité yi ndax nee na député yi euh, euh, maire commune de d'arrondissement yi. ñu ni ay indemnité la ñuy am. waaye député itam teraanga ju bari jeeg lii leen di jox muy lu rëy rëy mhm. tax na réew mi ñëpp bëgg doon député mhm. te kon nag dañu waroon waxtaan bu baax a baax fexe ba nit ñi di am indemnité waaw jërëjëf xam naa jombul hmm. euh, yi ñu nekk nii hmm. euh, yàlla mën naa def gars yi bu ñu faloo ba noppi nu hmm. waxtaane lu mel nii lu dëgg waaw baax na ci ndax euh, ñëw ci sam réew ca penc ma mhm. war ko fa nekkal moo gën nga nekkal fa sa bopp mhm. moo gën nga nekkal fa sa parti mhm. waaw te am na yoo xam ne bu ca xaalis génnee rek liggéey ca lu baax yomb nun sunum penc oustaz ali nit def daa defe ne lépp lu mu def war na ci am dara dëgg la fi ne da ngay am ak gan sax bu lay tàggu nga yëg ni kii daa bëgg ngeen tegoo loxo loolu kay xew waaw yeewi waaw nga xam ne bu ngeen teguwul loxo rek pour moom baaxul. Mhm. wala pour moom Saalum Saalum bay baaxul. sa waaye dem naa ko joxuma dara. waaw dara yeewu ma. penc mi nag buy doxee noonu day mu jàgg lépp ay yàqu. ndeysaan xale yi fi ne boo ngiroo woon fenn bu ñu la poussé. Mhm. ne la njoldu. boo lànk ñu dóor la xeer wala dóor ko ci sa paara mhm. <laughs> bi. njoldu. waaw njoldu mooy baaraam euh, jox ñu jox ñu tuut <laughs> bàyyi fi dara daal bàyyi <laughs> bàyyi fi dara <laughs> dama am ay boy suñu koñ mm. fu nu banque rek ñu dañuy ket dañuy football ah. waaw maanaam jàpp ne alcool ñoom war nañ ko def barab wutu. wutukaay wutukaay. yooyu baaxul ci penc mi. waaw baaxul nag penc mi dañu war a fexe ba. ñu mhm. moom xaalis te xaalis bañ ñoom moom. important oustaz comme li wax nii. waaw mooy mbooleem poste yi nga xamante ni dañ fa daan génne xaalis bi yëpp pasal pasal ci. Mhm. ñu koy denc xaalis ba mu war a mën génn. Mhm. ñu di ko génn fi ne bis boo amee chef de l'État ñu ne chef de l'État ni mu nayee. tagg nañ ko. baax na waaye ak a tàlli. xas nañ ko. est-ce que. maa la ko wax de. ah oustaz yow te firim yi tey. oustaz nag yooyu tam mu am ah. kees goo xam ne ngir mu tàlli la kees goo xam ne <laughs> wàllu social la ci war a dimbalee di jox nit ñi ga jeexee nu ñuy def ah, waaw <laughs> ak bu nit ñi tàmmee jox jox yooyu nu ñuy def anarchie rek waaw bu nit ñi tàmmee jox jox yooyu anarchie hmm. waaw ah, ah man de oustaz li ngeen di wax noonu jaaxal na ma dëgg tubaarkàlla boo boo demee ci Cheikh Abdoulaye Cheikh Bamba Dieye hmm. eh, yàlla na ko yàlla yokku wér bu bu ñëwee ci nee na xaalis dañ koy lijjanti waaye duñ ko liggéey hmm. mu ne ëpp naa def de hmm. nañ koy liggéey te bañ koo lijjanti ndeysaan waaw waaw ko defee buñ ko liggéeyee suñ mbàkk ki liggéey xaaj ba mbaam ko am na faxan du ko fa dugal hmm. waaye ki ko lijjanti mën na xëy jaay tasaare lépp bu subaa mu lijjanti waat ndeysaan waaw tag tag rek nga am bu subaa nga lijjanti waat lu yéeme la. waaw lu yéeme la ne sunu demam màkk mi am na ñoo xam ne ñu mokkali liggéey lijjanti bi yëpp màkka. waaw ñoom kay. c'est très waaw <laughs> saaba di ma gis leen fa. ndeysaan maa loolu dara ah. <laughs> mu ko wax de waaye <laughs> moom daal mi ngi noonu daal. and waaye daal bu fekkoon ne ustaas ci wàllu waxit euh, euh, li sëñ Babacar daan wax. ndax mm-hmm. daan tey muy aju mujj ci élection yi. Mm-hmm. rek wote wote wote xob ñaari xob yi nga yor. Mm-hmm. waaw rek xob bi ci biir xob ba ci. Eh, ndeysaan bi ci gémmiñ geeg bi ci poos bi. Mm-hmm. woteel bi ci poos bi. Mm-hmm. de denc wa ci gémmiñ geeg te dem ñibbi. ndeysaan ndékki jàpp Sud FM. rek taal ataaya déglu Ndeye Mariam Ndiaye. rek ñooy. bu jant sooyee nga ñëw sa bunt. bu jant sooyee bu bu 18 heures jàpp yooyu. nga dégg ñu ne bureau sàngam. nanga ma fa bindu woon. Mhm. nanga ma fa wote. Mhm. diw am na ci nangam diw am na ci nangam diw am ci nangam diw am na ci zéro. <laughs> ndaw yu bari oustaz. Ah, ah, liste yi ma gis bii liste yi dana jubee foofu foogul moom mën na nekk moom. <laughs> moom toogal foofu naan nii liste yu mag yéen mën nañoo mi zéro. <laughs> Euh, oustaz da cee tegoon nag ci laajam bi ne mm, boo seetloo maire yi. ñoom amuñu ay salaire daanaka ay indemnité rek la am. te nee daa mel ne buñ doon joxe salaire wala yu taxawee noonu maire bi sax moo ko gënoon a yeyoo ndax moom daa gën a jege askan wi ci fànn googu waaw ñoom daal mhm. pénc bi man tey sunu ma su mhm. su ngeen ma falee mhm. maire yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi liy ruuse ci ñoom ci ñoom lay dellu ngeen ma falee oto yi di gaare kum neex gaare dinaa feexe ba loolu di génneem koom-koom di dellu ci maire yi ak maire yi su ngeen ma fale <laughs> TVA yi nga xam ne mi ngi génn lu génn ci marché dellu ca marché bi lu génn ci garage dellu ca garage bi mm-hmm. waaw su ngeen ma fale xaalis bi nga xam ne dañ koy yëkk ci di ko dugal fu mu warta dugg dama koy dugal ci xale yi ak ndaw ñi ma wàññi campagne bu bari bi. Hmm. sa discours bi may lu ci lu lu ci ruuse rek <laughs> ma def ko ay usine ci région yi ak département yi. gars yi lii la ñuy wax de. <laughs> lii la gars yi wax de bu ngeen ma balee danaa nangam rek. <laughs> oustaz am na luy am na luy kal gars yi ba duñ ko mën a def. buñ ma hmm. bu may tàmbalee liggéey damay giñ ci alxuraanul karim. waaw wax leen yi laa bëgg a dox. ay jëm ci làmb jay bàggu xam nekk ci biti di wax ni mu yombee ah. waaw léegi ku dugg waaw <laughs> ku dugg la ndax da dem ci réew léeg-léeg mm-hmm. ki ñuy fal du bokk ak kii liggéey mm-hmm. ndax ki ñuy fal diw ngay fal mm-hmm. système a koy def loolu li muy def kon système booboo jara waxal tubaarkàlla ndeysaan ci euh, euh, Aliou Ndiaye mais oustaz ci grand rendez waaw dana moom dañoo nekk benn saxaar saxaar gi ndaw daw mais fi mu jëm moom baaxul maanaam saxaar gi yoon wi mu jaar moo baaxul léegi ñun nag jéemu ñoo xool yoon wi saxaar gi jëm mais chauffeur bi lañ amal problème naan kii wuru koo dawal na wàcc ma dawal na puus xel wi daa tuuti mu gën a samp xel te nee ak ku man di dawal système bi fa mu jëm moo baaxul waaw wax na dëgg de mhm. système bi baaxul tabarakalla oustaz Alioune lu ngeen neen ni suba tëggee incha allah si kaw tuuti rek maa ñëwee ci ci yonte la Ibrahima alayhi mhm. def mu xaara nag yi fii vingt deux heures trente incha allah bu ñu paree ci euh, avis d'expert yaakaar naa ni mm-hmm. ak Baye Omar Gueye ñu ñëw ak yéen ci alminbar ak Imam Omar Seck ak bari ñag tëngeej zéro ñëw na ci jaar jaar yi magi réew mi incha allah ñoo ngi ko nuyu baax a baax oustaz Momar Seck tabarakallah oustaz Mbacké xamtu xamtu incha allah oustaz boo noppee ci tafsiru quran bi danaa ñëw ak dongay daara yi ñu fas yéene waxtaan si lu jëm ci xamtoog yi ci aju tabarakallah man maa ngi ci suratu al-Fath ay vingt-neuf tey mooy sama trentième épisode maa ngi ci bay'atul aqaba al thaniya hmm. maa ngi ci talaayul hijra alayhi salaatu salaam mi ngi bëgg a jóge nag màkkatul mukarrama dem al madina munawwara talal badru alayna bu leen toxal seen ak déglu kon bu ngeen bëggee déglu yëpp kàlleen ku si defem seen rajo wa shukran yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu